l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD moo leen di may seen émission Taku moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show jërëjëf El Hadj Mamadou Diouf jërëjëf mbokk internet yi nga xam ne rek ñu ngi ñuy bàyyi xel fii ci solution TV ci studio El Hadj Sidi Lamine Niass Niass Koumba Abdallah ñu sargal képp ki nga xam ne rek ñu ngi ñuy bàyyi xel ñu daal di soobu ci li nga xam ne rek moom moo di liggéey bi daal di ànd ak ki nga xam ne moo di Omar Bun Xataab Gueye ci lu ay du ñàmbat mu ñëw fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xam ne rek moom moo di manifestation yi mu ci jógee daal di ànd ak maa jigéen Diop madame Dieng ci actualité du jour sponsor ak ki nga xam ne rek moom moo di Assane Mesere mu daal di ànd ak sony bu Diop ci victime di net neppaat musical li ma moom su baaxee dem élage jërëjëf Alaaji nuyu naa la euh, Omar bun Xataab Gueye. suka ñu ngi lay fay bu baax borom Kër Massar. Mhm, Kër Massar waaw. di waajal tabaski gi. waaw ñu ngi koy waajal nag yàlla yàlla nañu ko fekkee. te tal ko allahuma amin bu ñu ko fekkee tal ko yàlla nañu ko mën. allahuma amin <laughs> yàlla nañu ko suñu borom defal di ziar ñëpp di leen nuyu. Mhm. Euh, di am mbégte teew fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di nuyu saa. ñu koy mhm. jaayal bu baax yërëb rafet na. di nuyu euh, son bu di nuyu maa jigéen madame Dieng di nuyu ñëpp di leen ziar. di ziar Abdoulaye Bopp di ko ndokkeel da doon tudd suba. Abdoulaye Bopp Abdoulaye waaw. Ah, nee naa ko doom da ko doon tuddee <laughs> Moussa Bokar Thiam. Oh. <laughs> mu ne ma jigéen la. mais daf ko doon tàggee mi noonu di ko ñaanal di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan rek Walfadjri signal bi gaaw dikk. ginnaaw mhm. Pape Ndiaye sëñ Saliou. may nañ ah. leen liberté provisoire. macha allah yàlla na di ñaan aussi ñu defal ko Cheikh Bara. Mhm. defal ko Mati Sarr Niang moom tam journaliste bu jigéen da nga koy fàtte rek. Mhm. waaw ma te pourtant li nga ko jàppee du dara ah, jigéen la kenn du wax ci ay waxam te dafa jar a wax. Mm-hmm. loolu rek gars yi ni bëggee jël rek xeex bi teg ko ci suuf. Mm-hmm. pour mën na ah, day xaw mën nañ ko teg ci suuf mais nag waruñu teg lépp ci suuf. Mm-hmm. parce que Walf war na tijji ñeneen ñi ci kaso bi Cheikh Bara ak ñoom Mati Sarña ak ñeneen. ñoom ñëpp war nañu génn kon ah, mu ngi noonu di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kon su kaa ci kanam rek dinañ waxtaanee. yi fi naroon a xew. Mhm. di ay marche yoo xam ne gars yi bëggoon nañ ko amal. Mhm. ak ay dox léegi préfet ne fi jamono toll. dañ koy aye mhm. léegi nag ci kanam incha allah dinañ ci waxtaan ginnaaw mémorandum bi Pastef tamit génnee ci limu ñu faatu parce que ñii ñi ngi naan lim bii la Pastef génnee limam yooyu yëpp dinañ ko jéem a rek tënk waxtaanee ko comme tey ji waa ji xamul tele <laughs> waa jooju <laughs> foofu laa jooju nu tudd sax. <laughs> ñu bàyyi noonu ñu bàyyi noonu. alors jërëjëf Omar Boun Khatab Gueye kon ci kanam tuuti euh, sooy bu Diop nuyu naa la. maa ngi lay saalu maa ngi lay fay madame Samba di la ziar ba sama soxna yi nekk Touba. waaw ñu ngi lay fay ak sunu yaaboo yi tabarkalla mhm. maa ngi lay fay Adja di la ñaanal yàlla jàmm di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen fii ci euh, Taku Show mhm. euh, nuyu ma jigéen Diop mi nga xam ne tey dafa xëy ni yoggu ni euh, tan mu tawte uh-huh. maanaam lu tax mu ne yoggu man jaaxal na ma waaw ma jigéen des fois day xëy rek ni yoggu des fois mu xëy di fayi fayi lu mu ci mën a doon it xam naa boo demee namm jëkkër ji ci la ma ci loolu c'est Euh, mi ngi noonu nuyu Alaaji Sanjoogu Mbeng xaritu sëriñ si moom sëriñ Abdou Lahad Mbacké uh-huh. ñaan sëñ bi mu yàgg fi ànd nuyu futur maire de Kër Massar uh-huh. di ko wax ni maa ngi dégg muy waxi terrain waaye su boobaat nañu wutal fu amul ndox waaw ci am solo te mu nekk terrain yi mu moom waaw dana am solo <laughs> ci kanam tuuti uh-huh. ñu ñëw ci li nga xam ni mi ngi lëmbi réseaux sociaux yi kenn ki Cheikh Yérim Seck la gis nañu Amadou Ba Pastef yëkkati ay kàddu yoo xam ne bu dee lu am la Cheikh Yérim lu muy def ci biti mhm. ñaareel bett Wally Seck nee nañu dafa solati ay mbir yu daal ñu ñu méngaleeg mbiru góor jigéen mhm, ma ngay lëmbe ci réseaux sociaux yi mhm. daañu ñëw xool ndax diversion la noonu la de waaw booy nee nañ diversion la focus 2024 ndax nag diversion la ak lu mu ci mën a doon ñu ngi ciy ñëw ci kanam incha allah macha allah li nga wax diversion macha allah euh, madame Dieng coro ma jigéen lan moo la dal tey ba nga ñu yàgg yàggaalal waru sooy bu euh, suka Eh, <laughs> nuyu bu baax a baax. di la ziar. Mm. Eh, di nuyu Omar nag ak son bi mi nga xamante ni nii daf may tooñ waaye moom moo gën a xam li ma dal. ndax uh-huh. damaa socc. da ngaa socc waaw loolu du loolu du loolu faat ndax chaque jour nga socc. waaw sa feebar la mais daf. daal na bàyyi tooñ yi daal tooñ yi si boppam na <laughs> war a bàyyi mais jërëjëf maa ngi nuyu alaaji itam nuyu nag téléspectateur yëpp ajaratu mhm. dem ba diwaanu mhm. yi benn dëkk ñaari gaar mhm. benn aéroport nuyu leen jaar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko nag sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbàkke ñaanal ko yàlla suñ boroom mu yàggal ko fi lool mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam gi yëpp te wis ko ci biir këram nga ah, nuyu ah, képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel jamono ji ah, Sukayna si kanam tuuti daañu ñëw waxtaan ak yéen ci wàccaayu euh, Aïd el Kabir bi ñëpp xam nañ ni euh, ci la ñu dëgmal mm-hmm. daañu waxtaanee li nga xamante ni nii rek loolu la ñuy jëfandikoo ci jouru tabaski bi ak euh, ministre yi ndogal yi ñu ci jël ak lañ ci wax yëpp ci kanam tuuti lay doon incha mm-hmm. allah macha allah madame Dieng Sala mu koy nuyu kooku nga xam ne rek moom moo tuy soppee sëriñ Sidi Moussa Abdoul Ahad Mbacké ibnu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul alaaji nuyu nan la méngal Souga ñu ngi lay fay <coughs> di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow. Mm-hmm, dem ba Touba Mbacke nuyu xalif général des sëñ Mountakha di ko mu yàgg fi tànn ak waaye di nuyu di ziar sunu sunu xarit. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool ànd ak wér di ko ziyaar bu wér nuyu sëriñ xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul laa nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm waaye di nuyu bu baax maman Dieynaba Fall kooku sunu maman la di nuyu monsieur Lo kooku suñu tonton la di am ci ñoom mbégte kontaante di nuyu Umar bun Xataab di ko ñaanal jàmm di am ci moom mbégte waaye di nuyu bu baax son bu macha allah di am ci moom mbégte kontaante waaye di nuyu bu baax ma jigéen Diop ma nga xam ni ma nga ca bakkan yu fàtt ya mhm. tey jii nag mhm. waa ji nga xam ni moom la ñu invité woon ñu koy wax Mamor mbaay Mamor mbaay mooy ba mu wa non Mamoun Mbaye xamut télé. ah, ah. moo tax man damay wax ñoom mbàkk yu ah, fay. Mamoun Mbaye nekk euh, Touba TV. Touba TV di liggéey Touba TV la nekk nag mooy déglu rek yoonu géej mbàkk yu fay gi waaw. mbàkk yu fay boo gisee télé bi ba tey décollé wul. Ah. dafa teg des personnes yoo xam ne xamuñu télé joxuñu gëdd télé. non mais bu ñu dee personnel Mamour Mbaye rek. Mamour Mamour Mbaye dafa mel ni ci kilifa yi la. Eh. yaa ngi dégg Mamour mbaay hmm. dafa wax wax yoo xamante ni fii laa ko wax. mu ne ba mu demee foofa ca Gabon dañu seen oto da doon taw mu ne da dafa amoon problème mu radiateur bi am problème mu ndox nee na mu yëkkati biteelu vingt litres café Touba sotti ko ci te ah. booba mi ngi taw taw bu métti da nga koo gëmul taw bu mu bi moo ma ci jaaxal nu muy ah, tawee moom nee na ndox lañ manqué nee na fa muy fa fa mu doon taw ndox ma lu ñëw dem déglu ma rek da nga koo gëmul déglu ma rek a ah, gëmoo ko lu ma rek ah, Maam mbaay xam nga loolu fa la tappale dooree waaw léegi nag mu mu ne loolu da ko naqar dafa ñëw ngir leer si ko mm-hmm. waaw yaa ngi dégg ma ne ko boo ñëw mu ne ma yor naa vidéo yi loolu loo xoon Assane Mesere ma ko léegi na indi vidéo yi ñu wane ba ñuy sotti café Touba gi man mi gis naa ko yaa ngi yi man gis naa ko émission ne la émission bi tel kii la nga ne ok nga bàyyi ba dernier moment li gën a garaaw moo yëkkatiwul téléphone sax woote daal di bind daal di ne bon dama am euh, jafe-jafe contre temps contre temps point noonu la ko waxee ne dama am contre temps baaxul ma woo ko muy soog a wax naan non dama am contre bind naa la ko ci kii xam nga loolu c'est di caaxaan hmm. donc il parce que télévision dafa cher boo amee ñu woo la ci danga war a respecter timing boobu dafa am lu ko téye rek yeewin nag dara téew ko neen dañ ko yónni dafa am lu ko téye eh, ma mag mu doy ne dañ waa yónni ah mag ñu ko yónni mag dañ ko yónni da nga xam ku ko yónni ah dañ ko yónni da xam ku ko yónni sax ah dafa dem rek sama mag jooju nag mbaay waaw mais jàppalaat ko bés rek mu ñëw loolu amul problème bu lëndee na ñëw jàppal ko bés inshallah bu lëndee na ñëw kay leeral Mamour Mbaye. déedéet sa sa Mamour Mbaye émission mën nga ko kale ba dernière minute. mu ñëwaat dafa am ko ñëwaat ñu ne ko jottalil ma kaasu café bee diw mu bàyyi <laughs> te émission bi sax café Touba la tudd est-ce am na émission bi café Touba la tudd. émission ba muy def. Mamboor. caaxaan tubaab ay bi muy def euh, Touba TV. café Touba la tudd waaw café Touba la ko tudd. maanaam dañuy naan ci café gi ba ba tàng jër waxtaanee. suñu Touba ndeysaan wallaay Azim. Euh, Mamboor Mbaye Daane jërëjëf Mbengue euh, Mbaye Mbaye Daane bu altine incha allah na nga a ñëw. Euh, di nga ko invité kay wala ñu jël ko ci Nepad musical. <laughs> ñu dem jëli lu ay di <laughs> lay jaayoon baax su di la nuyu di <laughs> gërëm ñëpp di leen sant mhm. waaw comme euh, nin ko junj woon sànq rek dañuy waxtaanee actualité mhm. actualité bi nag tey la génn sax mhm. mooy euh, préfet bi jël dogal manifestation yi nar a am yëpp mu annulé ko daf ci bokk nag bu Walfadjri mbindoo day dox place de l'indépendance ak euh, li jëm ci euh, waa FRAPP yi ak waa Yewwi Askan Wi léegi nag bu dee ni li jëm ci waa FRAPP ak waa Yewwi peut-être seen objectif moom benn la woon mooy barricade ba nekk kër Ousmane Sonko ñu dindi ko contre le troisième mandat mais aussi tamit euh, li jëm ci euh, ñi ñuy jàpp ci kaso bi. Mm-hmm. ñu féexal leen bàyyi leen. loolu nag euh, préfet aye moom nee na contexte bi ak Sénégal fi mu jugee ci dëj ak bakkan yu fi rot ak ñoomin seen. Mm-hmm. mais aussi tabaski bi ñu jëm. Mm-hmm. parce que tabaski boobu ñu jëm démb yaa ngi dégg Abdou Karim Fofana sax mu ci wax naan boo gisee xar yeeg ñoomin seen yu bari teewul mun na am tiit la léegi nag préfet dogal bi mu jël liñ ci njëkk a jàngat mooy rassurer ak dalal xelu. parce que démb li préfet def tey rek Abdou Karim Fofana. wax na ko junjoon na ko démb léegi préfet moom moo ko dëggal. Mm. léegi nag pour rassurer lii di jëndkat yi mais aussi jaaykat yi. léegi nag dogal boobu daf ci am benn baat euh, bu Guy Marius Sagna wax. bu ma mm-hmm. intéressé dafa ne dañ tabaski gi moo tax. mu ne Ousmane Sonko dafa warul tabaski am déet parce que mm. Ziguinchor la dëkk waa Pastef fi sax wax nañu ko démb. Mm-hmm. mooy Ziguinchor la dëkk fa la daan tabaskee moom ak njabootam. parce que mooy maire Ziguinchor. waaw ah, mooy premier magistrat de la ville. kon loolu dafay obligé teew fa parce que moom mooy njiitu dëkk ba léegi tabaski jot ñu ne ñeneen dañuy tabaski mooy Ousmane Sonko est-ce que dina xëy dem julli ji. Mm. it njabootam est-ce que dinañ xëy ñaani ndewanal mais aussi ñi ci kaso bi Guy Marius ñoom tamit danoo war a dem tabaski ji. nee na ñiy lay tabaski bi dafa mel na ñoom seen tabaski leen xalaat ak seen njaboot mais nan fàttaliku ni am na ñi nekk ci dëkk bi war a dem tabaski ji te nekk ci kaso bi mun a ñooñ war na leen bàyyi xel bu ñuy wax waxi tabaski war na xalaat Ousmane Sonko bari nu di këram te teguñu ko ci yoon léegi yooyu yëpp mu dellu si waat ci contexte bi gars yi di taafontoo nag mooy sànq maa ngi koy wax bu nee tabaski ñu ne contexte moo tax xar yi teewuñu moo tax lii amul lii amul. te mhm. pourtant amul tabaski bu mu a dund te jafe-jafey xar. Mhm. duñ ko tudd jafe-jafey soble jafe-jafey pomiteer. Mhm. kon tey jii contexte bi rek lañ bëgg a profité. pour mën a utiliser moment boobu. léegi nag pour man dafa am euh, balaa may daaneel ñaari gën a yomb. pour régler problème mu Sénégal yëpp. démb bi taskatu xabaar yi xuppee ne day def journée sans presse loolu yàq deru Sénégal la ci bitim réew. nguur gi di woon soobu ci lu mel noonu. mais dafa oyofal bàyyi dara parce que du xabar bàyyi dara mooy dama bàyyi Pam Ndiaye bàyyi kii di Serigne Saliou Guèye parce que du xabar am lu nu bàyyi di séntuwaat leneen. Mm-hmm. léegi pour bañ nag manifestation yi am pour man jarul tere jarul bind mooy dindi barricade bi kër Ousmane Sonko. Mm-hmm. pour man boo ko defoon tey xam ne tey amul fenn fu loi bu doon ne loi moo ko def. Mm-hmm. ñu ne nan demaat ci loi. mais loi waxu ko. nit a utiliser bakkanam rek ak yéeneem wax ci mbiru ordre public mais nan dindi barricade yi buñ ko dindi woon tey waa Pastef jàppoon ñu bàyyi ko. beneen bi ci topp mooy bu doon yenn ci ñeentee ci kaso bi. te mu doon délit d'opinion délit d'opinion kenn jàpput nit ci àddina mooy nit wax na lii lii bind na lii ñooñu dañuy neex a bàyyi démb Pam Ndiaye bàyyi nag bàyyi nag mais bu ñu bàyyi woon Jomaay Fay bàyyi woon ma Samba bàyyi ma dem ba mais est-ce que loolu. Mm-hmm. tey jii du am lu mu oyofal. Mm-hmm. ba tax ñee liñ jàppoon ñu bàyyi ko. mbiri troisième mandat lu ñu mën a xaar la waxtaane waat ko ci kanam mais daf ci am ñaar yoo xam ne lu jàmp la te pour man mun na dalal réew mi jarul ay préfet di interdire dara mooy ñi ci kaso bi ñu ci mën a bàyyi ñu bàyyi la barricade kër Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu dem Ziguinchor dem julli ji li ko yoon di toppee nag bu koy toppee loolu moom moo ko ay avocat am ñoom ñoo koy lijjanti kon mu doon situation bu compliqué léegi nag euh, mu doon loo xam ne tey ji équation la bu nekk suñ kanam parce que bu dee nit ñi manifester jàpp ni ñoom malgré interdiction bi ñoom dañuy manifester mm-hmm. tey jii li nar a am le vingt cinq ak le vingt six ba fi ak tabaski kenn xamul lu mu mën a doon. te ñaanuñu yàlla lu fi amoon am fi. mais pour man solution am na mais gars yi ñoo bañ a solution bi gën. Mm-hmm. Euh, son bu ci interdiction yooyu le ak gars yi jàpp ni interdiction yi jaarul yoon. ñoom li ñu bëgg mooy ñu dindi barricade yi mais aussi ñenn ñi ci kaso mi ñu bàyyi leen troisième mandat ñu leeral ko ni président du bokk. Mm-hmm. waaw jërëjëf Omar. Mm-hmm. xam naa politiciens yi dañoo war di. maanaam bañ a xaabaabal ci mbiru mbiru politique. Mm-hmm. de trop ku dii ñu toll nii dafa am lu Sénégal yi tal mm-hmm. damay gis saa yu ñëwee dañuy soññ Sénégal yi pour ñëw voter en masse. Mm-hmm. pour bëgg fee jële wala bëgg fee saxal. Sénégal yi fekk ci leen ci. ba bindu bi passé ci wàllu weer wi ñu joxe woon. lu kenn mës gis ci Sénégal la gis muy ay ndaw yoo xam ni dañuy dem pour bindu ji. ngir mën a voter ci élection yi di ñëw kon am na lu waa réew mi jaral ñi politique pour teg leen. ak teggi léegi bu ñu demee ba démb Cheikh Taalif laa gis mu di ko wax ci ré kii bi amoon kër Cheikh Baara. Mm-hmm. waaw mu ni xoolal ñaari at yi ñi ñu toroxal ci Sénégal maanaam toroxal du jàpp nit tëj kaso wala mais dafa ay nit yoo xam ne seen liggéey dafa yàqu ci ñaari at yi mm-hmm. ñii ay manifestation moo yàq seen liggéey ñii leneen a yàq seen liggéey am ñu ñàkk seen bakkan am am ñu jub ay tabaski mm-hmm. man li ma gëm moom ñoo ay politiciens lañ bu ñu jiital seen intérêt de trop réew dafay am fu mu toll foo xam ni Euh, maanaam dafa am tuuti looy bàyyi du ñàkk jom du ragal. Mm-hmm. tabaski ñëw na am na ay bakkan yu faatu. bul xaar sax préfet di interdire. bàyyil ba ji passé. après nga déglu kilifa gi war na wax le vingt cinq. Mm-hmm. nga déglu waale xool téewul am na yeneen yu fi ne yeneen moyens yu fi ne. communication bi mën nañ ko def ci ay tele ci ay rajo. Mm-hmm. dénoncer injustice bi dem seeti kilifa diine yi. def porte à porte mais danoo seetlu ne kilifa gi il faut que nga yëngatu. comme ni journaliste yi def xupp ko. fas yéene mbëkkanteeg moom pour mu bàyyi. mais ay ñaan moom ma ki maye. waaw noonu waa xam nga comme ki fi ne. Hmm. moo leen ëpp doole ci Zaire. Hmm. moo yor doole ji. te gis nañu président li muy bàyyi bariwul day day confronté. Hmm. léegi nañu yërëm sénégalais yi nga xam ni instant bii nii Omar dafa am ñu investir ci ay xar. yàlla xam na ni diggante ñetti fi ni li ma jot ci ay borom kër yoo xam ne nee nañu dañ daan dimbalee. te ren dañ woo di ñaan dimbal. wallaahi naan ma ren de bu ci diw jàppul wala bu ngeen ci jàppul du baax. bari na te pourtant dañ daan joxe ñooñu. bari léegi kooku imaginer bu ñu nee manifestation dafa war a amaat. léegi nan lay demee après ci fi mu waroon a jëlee ak feneen ak feneen am ñu war a tëj borom ba kii yi xaalis bi ni waat kàkk taxaw ñi doon korkoral ba yaakaar duñ ko am dama leen di ñaan daal nañu bàyyi ba affaire yi passé tere ko day indi jéye ñoom ñu dem forcé da indi jéeya mm-hmm. nañu bàyyi affaire yi mu mu mu mu sedd bu tabaski passé bu fekk kilifa gi wax ba pare bu leen neexee ñu delluwaat ci mbëkkante la tey soo see waxoon bu dee ñoom ci loolu lañ nekk nañ leen bàyyi ñu mbëkkante defar seenum réew mais fii ñu toll nañu bàyyi nag borom kër yi ñu tabaski ci jàmm quoi mm-hmm. voilà maa jigéen yow loolu mooy sa xalaat ci interdiction yi dëgg yàlla sooy bu tey moom ànduma yow parce que tamit euh, li nga wax ne boo ko aayee mu indi jéeya préfet bi ab euh, ñoom ñu force def day indi jéye mais soo leen bàyyee ñu def du indi jéye non donc euh, li gën mooy euh, comme que ñoom itam Sénégal kenn mosu fi bañ li nga xamante ni wala ñu aaye est ah. bu ko autorisé woon mhm. ñu dem confronter ak takk der yi buntu kër Ousmane Sonko est loolu. waaw loolu laa lay essayer di la expliquer nii man ni su fekkee autorisé na ko. ñu hmm. encadré leen ñu def seen manifestation comme ni mu amee euh, bi ñu génn F24 defoon ca place euh, de l'obélisque. Hmm. xam nga def nañ ko ba noppi gaa yi def ko si jàmm ak salaam pare nettoyer foofu ba mu set ku nekk daal di raamaan ndànk dugg sa biir kër daal di noppalu ko ji donc man je pense que bu ñu defoon noonu rek problème mën na bañ am parce que tamit mënuñu nekk si dëkk boo xamante ne nii da nga condamné nit ki. ah bàyyi ko biir këram ba bancariser këram ay njabootam ak yëpp nga xañ leen yenn droit yi waa koñ ba sax pour ñu génnati léegi bu ñuy dugg sax ci fitna la ñuy duggee loolu aussi dafay mel ni dafay am leneen lu mu te ñu bàyyi di taafantaloo tabaski bi ñu baal ma parce que problème yi ngay gis ni ñuy wax naan daba xar yi dugg ñook nangam loolu yàgg na fi <laughs> yàgg na fi n'est-ce pas tabaski da daan jot dañ lay wax soble soo duggee ci biir marché bi lépp loo xamante ne ni prix ba mu tolloo na ngay gis ñu yokk ko ba euh, ñi nga xamante ne ni comme ni ko ko son yi bu waxee seen doolee bariwul noonu pour ñu jënd ba mate sax problème lay daal di jóg kon donc loolu du du du man pour man du lay lii gënoon daal mooy ñu bàyyi leen ñu def li ñuy def parce que tamit dañoo am li nga li nga wax tout mooy que ni nit ñu bëri dañ leen jàpp ci ay mbir yoo xamante ne nii koo ko wax sax daf naa la loolu nan lañ ciy jàppee nit nañu fexe ba daal ñoom li ñu bëgg ñu def ko bu ku nekk rek bàyyee leen na li rek ca jàmm dina am coow du jib. solo baal ma Euh, waaw léegi mm-hmm. ma jigéen du du rek ñàkk interdire wala interdire mais léegi mm-hmm. bu ñu wootoon marche man xam nga sooy bi citoyen la li ñuy xeex bi dee injustice war na maa dem uh-huh. léegi su ma nekkee ci guddi wu dem lijjanti ji tabaski ak lijjanti sama njaboot xam nga benn perte naa temps muy benn ñaari ba xaaral quinze heures dix-neuf heures foofu mënul la yàqal kenn parce que yow déjà yow yaa ngi nii waaw baal ma rek ma leeralal la dama léegi waaw léegi baal ma rek beneen bi mooy beneen bi mooy mm. dëkk bi li fi réglé ku ko réglé kan moo ko réglé. ah mais nit yi. non kan moo ko réglé xam nga fu ma bëgg waxee mooy. gis nga ñii di woote tey manifestation yi. seen jàmm. bu dëkk bi tàngee. xale yi ngay gis. léegi xale yi regle nañ dëkk bi ci trois jours yi passé nañu bàyyiwaat xale yi ak seenu président déglu leen bu jóg jotee bu xeex jotee ñoom ñii di woote kenn du leen gis tey gis nga bu ñu demaatoon bu bunt kër Ousmane Sonko bu affaire yi ne xale yi rek nga fay gis. dëgg la doo leen fa gis ñoom ñëpp mm. kon nañu bàyyi booy yi ba affaire yi passé ñu déglu seen président. bu waxee ak ñoom ba pare benn cinq yi dama ne xam nañ ko Omar mu baal ah, dama ne diggante diggante 15 heures ak 19 heures mënul yàq ci journée kenn lenn nañ leen bàyyi ñu manif parce que depuis lors à chaque fois bu ñu bindee autorisation su ñu demee dinañ ne jour bi nga ko waroon a indi indi woo ko da nga ko waroon a indi ñetti fan avant wala soit ñu wax leen beneen motif boo xamante ne ni li jaadu daal Omar comme nit ku nekk am nga sañ-sañu manifester nañ la bàyyi nga manifester si jàmm dem delluwaat sa biir kër looloo jaadu. man mhm. sama gis-gis boobu. voilà waaw xam nga <clears throat> euh, li am ci buntu kër Ousmane Sonko euh, bu ci nit ñi gisee ni état dafa am doole man de wax dëgg fa yàlla gisuma ci loolu man gisuma ci doole état man néew doole laa ciy gis. Mhm. parce que kër du kaso. ba ñoo defar ay kaso. wax ni fii la ñuy tëj nit ñi. <laughs> waaye waxuñu la sa kër gi nga defar lañ lay wax ne la bul fi génn tëj nañ la fa. résidence surveillée mais du mel bu boobaa dañ lay jël yóbbu la. mais duñ la yóbbu ci sa kër gi la mais résidence surveillée lay àtte teg la quoi. waaw mais juge la ñuy xaar. mu bind arrêté waaw c'est que lii ñu xew nii. lii moom. ah juge bi bindagul arrêté. xam nga xam nga li am solo. li am solo mooy. li am solo mooy. Hmm. Euh, Ousmane Sonko bu dee tëjaguñu ko. dañ ko war a bàyyi mu julli ji alkaati ya fay toog dañ leen a war a bàyyi ñu julli ji seen kër <laughs> loolu lu jar a wax la de yaa ngi dégg parce que alkaati yi dañuy wax di leen fàtte waaye ñoom it wax dëgg fa yàlla soxla nañ seen bopp léegi nag yow miy jël ab dogal war nga xool lool léegi leneen li xew man dama jàpp sax ni <sighs> eh, barricade bi ñu ngi ci yoonu dindi ko waaye dafa am nu ñu ko bëgg a dindee man dama ragal ni <laughs> Euh, li préfet def ni parce que préfet dafa teel a tey la lan. tey la ko teel génne mercredi mm-hmm. ko teel a génne mm-hmm. parce que damay bañ ñii dañu teg benn pion ne dañuy jëli ji Ousmane Sonko dindi ji ko fa mu ne. ba noppi dugal seen autorisation. préfet tey jii ci kii bi mu ne interdit lépp pour ñu wane doole. di nga xam ni moom la état. Ah, waaw doguma la sax démb conférence de presse passée fi El Hadj Malick wax lu am solo. Mhm. maanaam manifestation yi yëpp mun na bañ am. waaw bu dee nii def na li leen war. waaw léegi nag est-ce que bu ñu ginnaaw bu ñu defee lii ba pare. Mhm. pour ñu wan nit ñi ne état de ku am doole la maanaam ñun ñoo am sañ-sañ tere nañ leen ba mu ñëpp yëg ni tere nañ. ñu def lii ñu daal dee ñëw nag dindi barricade bi nga xam ne léegi dañuy bañ. ne dindi leen ñu daal dee dindi est que du état loolu lay jéem a sauver fi mu toll nii. yóbbu ko Ziguinchor mu julli ji. ñu indiwaat ko. ñu julli ñu xaar ko bu ñu indiwaat ko. loolu kenn xamul mu dem julli. ñu indiwaat ko bu pare ñu indiwaat ko xam nga li doy daal en tout cas. xam nga fi mu toll nii yi ngeen wax yëpp problème mën na bañ am problème mën na bañ a am mooy lan mooy nañ dindi barricade bi rek foofu rek mooy problème buñ ko dindee rek problème amatut mhm. yaa ngi dégg parce que situation bi ñu nekk. mais barka day bi ñu nekk. dëgg la non mais dafa bëgg a yàgg. mais dina dañ situation bi ñu nekk. Mm. Euh, dafa nekk situation boo xam ni euh, nit ñi bëgg nañu feetu ci jàmm ak salaam ak dal. Mm. waaye tamit nit ñooñu Ousmane ko da cee bokk alkaati yi bokk ci. Oh, ci nit ñi. waaw bu barikaat bi amee. continuer ba tabaski. bu yeboo nga xam ni moom Ousmane Sonko moom tabaski wut tabaski tam ñëmu dëkkal sax atmosphère bi ñooñu sax daanaka ci mbir mi lañ bokk ak alkaati ak ñooñu ñëpp te ñooñ nag dañoo war a am liberté feetu comme ñëpp bokk ci comme sénégalais yi te loolu li koy def lenn rek la mooy lii kat ñoom sax nangu nañ ni lii moom euh, warta ne lu warta ne nag bu mu ne mm-hmm. bu newut rek dara du ne jàmm danaan ñooy mm-hmm. donc li am solo mooy ñu daadee dindi lii te gëm naa ni yaakaar am na wax dëgg fa yàlla am naa yaakaar ni daañu ko dindi parce que li tax ma am yaakaar ni daañu ko dindi préfet dogal bi mu jël nii man jàpp naa ni dogal dogal la rek pour euh, wane ni état bi mi ngi fi. Mm-hmm. ba tey am na sañ-sañu tere ne maa bañ ba tey am na sañ-sañ xam nga fi mu doon dafa demoon bu ñu le leen acca kii leen ñu ne état bi amatul lu muy bañ man damaa defe ne fi mu doon état bi dafa toll ci. am naa bañ ba tey donc euh, nañ bàyyi noonu tey tamit yàlla na demee noonu mm-hmm. aussi tamit bu ko defee jàmm na ñooyu ko parce que tamit fi mu toll nii loolu ñuy wax noonu dafay jouer xam nga tey ji Omar mm. boo doon investir ci wàllu opération tabaski pour jëndi xaar ak ni dëkk bi mel nii mm-hmm. da ngay hésiter da naan wóor mm-hmm. parce que yàqu yi fi xew bii paase épargne wut kenn mën ngaa yeenoo fële say camion soble ñu kal la ci diggante bi jël ko maa ngi dégg benn booy nee na ren di nga gis ku musta sol jasneer di sol jasneer <laughs> comprendre nga waaw dégg naa ñu naan ci waa ji laa ko dégg Babacar Fall nee na am na ñu jël jël jasneer di ko tuddee xaw ma lan résistance <laughs> résistance comprendre nga kon nga gis ni am na ñoo xam ni euh, tiit nañ ñemewuñoo def yenn action yi fi mu toll nii. te loolu mooy li nga xamante ni bii wax dëgg fa yàlla fitna googu loolu mooy waneen rek Sénégal moom euh, dara xaju fi lu dul jàmm. dara xaju fi lu dul jàmm te jàmm jooju war ay caleçon di ko jaay. ñu jàpp ko ñu ko euh, man euh, damay wax ni que damay tey damay ànd ki nga xam ne rek euh, moom la li yi bu wax ni dama ciy ànd. ndax tamit aussi nit ku ne mën xam nga li ngay def te manifestation yi tamit du loo xam ni dafay neexal dëkk ñu ngi ci tabaski am na ñoo xam ne amuñu ta amuñu xar ci li nga xam ne mooy li ñu yaakaar mooy coggal yi mooy yii ñëw te bu mu ne kenn gisagu ko te li ko li ko waral mooy. li nga xam man am naa bu yàgg mais man. ah coggal no amagul gis kenn gisat ko te da daan te da daan am lu bëree bëri te gis nga da nga daan génn ci biti da nga daan génn nga gis ni ñi teg fii waa gars yi waa ji nekk ci suuf na ay 600 mille ak 400 caaxaankat bi ne fii ci suuf moo tax caaxaankat bu mag bi <laughs> man imagine tey tey Omar tey nga indi saa dama bàyyi ma continuer li parce que temps bi dafa jeex yow yaay am mm, saa xoola a ñëw ah, mais ko teg a dee xar yi rafet ne ñii raas déem la ñuy doon ah. am na ñoo xam ne dañuy ñëw pour manifester am na koy euh, ah, neexal lakk ñu koy jël di ko loolu def nii Ah, ah, yooyu nag sooy bu taalee naka jekk am xar ne fa. Ah. gars yi dañ koy lakk dañ yow. yow looy xeexee di lakk. looy xeexee di seen kër yi. na yoo xam ne sooy bu fii ngay indi sam xar. Hmm. booy taal xorom dong la ñuy wóorul mais daal wax dëgg yàlla manifestation yi moom nan bàyyi ba après tabaski rek ñu def leen ne di manifester ñu yóbbaale sa si woo bari de ama nga tëjaale a <laughs> c'est pas waaw mi ngi noonu kon eh, di c'est pas sûr jàmm def jàmm allahuma amin di ñaan mm. jàmm rek mm. eh, ku ne xam lan moo war rek mm. parce que waa ji tamit war na tabaski ji ah dina dem incha allah loolu mooy wax président Macky boo. dafa war a tabaski ji alkaati yi tabaski. wallaahi yéen man gëm naa ko tamit tabaski non man gëm naa ko tabaski jàmm mën naa am day am parce déggee son yi waxee nii rek da ngay xam ne jàmm dina am Ousmane Sonko dina dem barikaat bi dinañ ko dindi man alkaati dinañ dina dem jàmm la ñuy def. incha allah Macky Sall génn wax ni troisième mandat du am mu naka mu tudd. waaw mu joxe ñu tur wi waaw joxe tur wi ndeysaan dëgg la. waaw non Cheikh Baara waaw Cheikh Baara nañ ko bàyyi mu dem joxe ji aw turam. waaw toogaat noppali ko. non nañ ko bàyyi rek na génn rek. na génn daal nañ ko bàyyi rek incha allah. gars yi dugal nañ liberté provisoire. yàlla na antu na antu wax dëgg yàlla. noonu la rek ñi jaan jàmm ci réew mi. jàmm dafa neex waaw bu la bu bu marsul fii mars fële. wallaay noonu. macha allah di ñaanal ñëpp jàmm. di mhm. ñaan xewal li ma bëggoon ñu yokk ci rek bu subaa du ñàkk match dellu si. ci sujet du jour. loolu la mooy mémorandum ak guerru chiffres actuellement. macha allah ah, kon euh, su ko gaa oh, rafet na euh, Omar wax dëgg yàlla di wax ni ko jàmm rek mooy. Euh, voilà jàmm bàyyi ma moon bàyyi parce que affaire bi <laughs> waxtaan bi mi ngi neex de suba jaru ko waxtaan bàyyi na bàyyi ba leen <laughs> ñëw départ waxtaan wi neex na Omar ci li nga xam ne rek mooy euh, jàmm ji ñuy wax ni ko jàmm ci la lépp xaj nag wax dëgg yàlla di di ko ñaanal ñi leen jàllal jàmm ki nga xam ne moo di sëñ Saaliw ak Papa Ndiaye mi xam ne rek bàyyi nañ leen parce que loolu lépp dafa neex ci loolu lépp jàmm la te gis nga cin bu naree neex bu baxee xeeñ te ñooñu génn nañ kon Cheikh Bara ci des après Ousmane Sonko day kii yëpp te ñëpp génn daal mu doon loo xam dañuy tabaski ci jàmm mu doon lu neex euh, donc ñu dem régi daal di ànd ak euh, ma jigéen ci sujet du jour sàll ngaar lam taal de Dieng Saala madame Dieng Saala Thioro Madjiguène borom actualité du jour. waaw su kay na mhm. tey nag euh, mhm. daañu waxtaanee comme ni ma la ko waxee tout à l'heure rek wàccaayu tabaski bi démb nag ki nga xamante ne ni moo di Abdou Karim Fofana ak mhm. Samba Ndiobène Ka euh, génnoon nañ wax ci euh, mbirum soble xar yi Omar yi tudd tout à nee nañ nag jamono ji am nañu cinquante mille stock yu nga xamante ne ni moo ngi fii nekk waaye nag bëgg nañ ubbil ñi nga xamante ni ne ni ñoo di importateurs yi ñu fas yéene euh, wàcce fii li nga xamante ne ni mooy lu tollook ci di mille tonnes ci soble ñu seetlu nag prix yi fa mu nekkoon euh, dafa jóge euh, gën a yokk comme ni ma ko waxee sànq à chaque fois fête di am dañuy jël prix yi yokk ko mais nee na nag dinañu fexe ba daal lépp matani moom it ki nga xamante ni moo di sama Ndiobène Ka wax na si xar yi nga xamante ne ni nee na Mauritanie ak Mali mi daan indi xar ñoom daal jàpp nañ ni xar yi dina ñëw te lépp dina mat dinañ dem na xool li nga xamante ne ni moom la gars yi wax ci biti ak li ministre bi wax euh, lu mu doon ñu dellu si Ce qu'il faut savoir c'est que le besoin en consommation mensuelle d'oignons au Sénégal est de trente mille tonnes et en ce moment même nous avons plus de cinquante mille tonnes disponibles. Nous avons pris la décision de d'autoriser l'importation de dix mille tonnes euh, venant d'autres pays et même plus euh, parce que nous avons constaté quand même qu'il y a eu alternatives. Là où le prix devait être à moins de 10 000 francs, 9 000 francs, on note que le prix est à 14 000 francs. Et apparemment, il y a beaucoup de pratiques de rétention de stock. Il y a des producteurs qui attendent que le prix arrive à 15 000 francs pour ouvrir euh, pour commencer à vendre le stock ce qui n'est pas normal. ah ministre bi déglu naa ko démb wax na de waaye damaa xam ni soble bi ak moment bi mu toll nii seer na seer goo nga xamante si nii. mu mu ne su koo jaay. mu ne su koo non séera luñ ko de ñun ay détaillants lan xam nga détaillant moom li mu gis rek ci grossiste bi loolu la mën a jënd waaw ñoom daal bu ñu waxee grossiste yi wala ñu wax ak kii li mu gis ci grossiste bi rek loolu la mën a jënd parce que ñun bu ñu demee jënde boo demee jënde quinze mille cinq cent yow loo mën a jaayee foog nga teg téeméer wala nga teg juróom fukk sax astan ak fi réew mi toll nii waaw loolu moo tax quoi waaw. léegi moom moom ministre bi bu fekkee mënu leen ko wàññi moom mi ngi commandé ma ngay waxaale pour bato bu ko indi soble fii ak Tabaski. boo xam ne bu ñëwee rek yéen daanaka seen bos duutu jaar duutu jar ndax bosam daanaka da koy maye. ah war naa gaaw ñëw de ndax ma am ci njëgu xar. soble waaw. Ah. bu yombe ah, bu yombee jënd. bu dinaa ci mën a jënd maanaam am ci njëgu xar boobu. war naa mais soble si la wala Gambie. non bii moom soble senegal la. Ah, waaw soble Sénégal la doyul moom soble senegal doyul boo duggee ci paak bi rek nga xam ne soble doyul heure bi daan na fekk pa pile yi nekk ca kaw. ah pomme terre ak lépp a ci yem fi mu ne nii sa waay lu la waay mënti di wax bu gaawul moom soos yi du baax waaw. pourtant nag soos pomme terre même bu bu duuful ndaw geeg cafkali cafkali pomme terre am na solo si soos de. am na ci solo trop am na bu tëmbal bi noonu pas bu frite bi sax mais bi nga xool tëmbal ko noonu boobu moo am guub bi nag waaw a tas noonu. léegi kat soos bu mag a ngi nii lii yaa illa illa yaa bëgg soos. sony bu sa doom baay bi ma bëgg soos sony bu même lii sable la waaye bii gis nga ko bokkut ak bii bii bu xong la waaye sable bii bu weex la gis nga ko nii saaku bii nga xamante ni gis nga ko mooy pomme de terre bi saaku bi pomme de terre bi gis nga ko dafa xaw a sew kii pomme de terre bi boo si boo si dawalee voilà boo si dawalee paaka danga nga yóbbaale xaaj bi li si des bu baxee li si des bu baxee day daal di jeex mais kon li li pomme de terre bi am solo mooy cafka gi nga xamante ni pomme de terre bi dana ko saf man ko ànd ak ndawal gi moom mooy am njëriñ la mais pomme de terre gi du pomme de terre pour lekk ndax boo ko toggee day tas ndax day tuuti daa néew doole waaye dana dana safa sàpp ndawal gi kon lu am solo la euh, loolu daal lañ fi jëlandeegun fii si marché bi euh, Ablaye kon maa jigéen Diop mi ngi noonu euh, saaku pomme de terre bi mille francs lay jar kilo bi. 700 lay jar moom mii nga xamante ni mooy soble si moom am fii te bu Sénégal la bu bitim réew nag Abdoulaye Fofana nee na dina ko indi te bu ko indee nee na ñii dinañ waye di jërëjëf. Aïcha mi ngi noonu. Euh, euh, Soukeyna dégg nga li euh, Assane wax. Mhm. ci jaaykatu soble boobu ci seeraay bi. Mhm. soble bi nag mi ngi fi. surtout bu local bi mais nag ministre bi nee na danañu jéem a importer lu tolloog ci dix mille tonnes. Omar mu mel ni nag jafe-jafe yi ñu ngi wéy ba tey waaye ministre bi moom daanaka li mu def rek mooy dalal xel yi mais ba mel na ni ba léegi nii xel yi dalagoo. waaw parce que lool li ko indi mooy ñoom contrôlé wul marché bi. Mm. parce que bu nee la tey jii euh, soble wala pomme de terre mi jar yenn njëg yi ñun la juróom benn weer ci ginnaaw am na ñu ko doon bay mi yàqu si seen loxo. Mm-hmm. xam na loolu problème la demoon ba boo demee caare yi ba mun di dem ñu la koy jaay ay kilo deux cent cent franc. tey jii nga dem ba egg ci niveau boo xam ne ñu naan la saaku soble. man ci koor gi am naa ay xarit yu koy jaay mais du passé huit mille huit mille cinq cent mënul egg dix mille mais diggante koor korité ak tey jii mu mën a doubler mooy wane ni état bi contrôlé wul marché yi. léegi nag euh, xam lu tax euh, jënd ak njaay compliqué maanaam li ngay jënd bu dee nii dafa bari ci marché bi njëgle mën na oyof parce que ñi koy jaay dañuy bëgg mu jugal seen loxo mais bu dee ñiy jënd ñoo ëpp. liy jaay foofu jaaykat yi bu ndee ba xam ne ñëpp soxla moment boobu ñoom dañuy utiliser moment boobu pour mën a yokk seen i pour mën cee gagner par dañuy jàpp ni occasion la liñ pertoon ci lu yàqu dañ ko war a récupérer ci moment bi am na ci ñoo xam ne ñi am conservation dañuy jël yenn yi sax rënk ko tee ñi am doole parce que am na ci ñoo xam ne jamono bi muy jar ci kii bi nu mu tudd ci zone des Niayes bi doon loo xam ne kenn soxlawu ko woon ñoom dañ ko daan jënd conserver ko parce que am nañ ay moyens léegi nag di xaar moment yi pour mën ko jaay léegi nag li lay wan ni état bi mënu ci dara. Mm. mi ngi jar quinze mille seize mille wala quatorze mille ñoom mënuñu imposer dara lii di jaaykat yi. léegi ñoom benn mm. pexe lañ jël teg mooy dañuy ibbi marché bi. léegi libéraliser ko léegi li war a jugee ci bitim réew di soble importé bi ñëw léegi nag soble importé bu ñëwee soble gu bu baree li ma naan bu baree ba sakkan bu naree lamb dañuy obligé jaay ko léegi nag loolu du baax ci commerçant sénégalais yi mm. mais dina baax ci ñi jënd parce que commerçant Sénégal li ñu jotoon yor mënuñu ko jaay seen problème mooy mënuñu ko jaay léegi fexe nañ ba leneen ñëw di wujje ak ñoom te am na ñu ne lay jógee bitim réew moo ëpp qualité neen soble bi ñuy bayee fii. ah mais faute bi est si que bi tamit parce que mënuloo ne comme li nga wax tout à nga bay ba pare soble bi day mujjee dem yàqu fënax ba ki nga xamante ne nii. non mais loolu accompagnement bi état bi waroon def baykat yi. Mm. moom la deful ci bu njëkk. Mm. xam na ñun tey ji li ñuy dund sànq wax nga at mu ne bu buñ tollee ci tabaski ak korité dañ koy dund léegi nag ban pexe la oustaz la la kii teg nu mu tudd état. Mhm. teg pour que lii am nii du amaat mais chaque année day amaat léegi état bi benn solution rek la ci am. Mhm. mooy bi gën a yomb ci moom. Mhm. mooy day ibbi marché bi. léegi benn dix mille tonnes ñëw di wujjeeg li nekk ci réew mi. bu boobaa njëg yi mun na wàññeeku oyof ci ñiy jënd mais commerçant sénégalais yi doonul lu gën ci ñoom. pour man état bi dafa war a def de telle sorte que. Mm. moom mu contrôler marché bi. bu contrôler marché bi dina mën a imposer ñi di jaaykat yi ay prix. Mm. mais état bi li mu def mooy amu ci pexe léegi day xool li gën a yomb ci askan wi ngir ñu bañ ko mere ngir mu def ko mais man pour man solution bi gënoon. mooy état bi fexe ba maîtriser marché bi. Mm-hmm. mën a imposer ay njegam mm-hmm. mais aussi baykat yi état bi defalu leen lu tax mu mën leen imposer ay njeg mm-hmm. loolu aussi moom mooy problème bi ci marché bi. mais li may faral di wax rek suñuy ministre politique bi moo leen xaw a sonal. boo xalee ministre du commerce li nga koy dégg muy wax ci commerce bariwul sawar na ci Sonko sawar na ci manifestation sawar na ci leneen mais day xaar ba événement ñëw rek dugaale ci événement bi profité wax ay waxam mais pour man xaaruñu ko woon ci tey durant ñu fal ko dafa waroon taxaw ci liiba ba bu tabaski ñëwee problème yi ñu amoon daaw duñ ko amaat mm-hmm. mais bu dee ni problème yi ñu amoon daaw moom lañ amaat ren ministre bi lan mooy njëriñam d'accord ayca mi ngi noonu son yi bu seeraayu soble bi ak li nga xamante ne ni moom la ministre bi wax euh, ci euh, mbirum importation bi est-ce que jàppoon ni waruñu jaay d'abord li nga xamante ne ni moom la ñu bayee ci réew mi ba noppi doog a jéggaan xar yi ci la bokk wala. xar yi ci la bokk day sa yow dégg naa la si suba nga ni euh, comme premier ministre bi dem na ba wax ni xaru 60 000 francs am na nga ne yow gis nga ko teg nga ko bët bëgg naa aussi nga wax ko sénégalais yi nga xamante ne nii seen doole àggul ci ñu mën a jënd xar yoo xamante ne nii <laughs> day romb. loolu la ma wax loolu la ma mu ne moom comme ministre bi wax na ko moom it gis na ko na ko leeral askan wi aussi. waaw léegi ministre yi moo tudd nan Abdou Karim Fofana. Abdou Karim Fofana ak Samba Diop ministre yi des fois seen dama da nga dul xam lu ñu yoree ba parce que moom laa déggoon keroog ci affaire wal fajari bi muy joxe xabaar. Mhm. ni. Euh, mooy ministre du mooy porte-parole du gouvernement. ah voilà kon loolu moo tax parce que damay dégg ñu wax fii après ñu waxaat fi dañoo mm. cumuler daal ay fonctions. Mm. voilà léegi pour tontu sa question bi li nga ma wax man choix bu. soble bi d'abord si ab sëñ Abdou Ahad daan wax maane. Mm. Euh, weekend bi passé jënd naa xarum tabaski moo xam ni boroom euh, soixante dix la déparé woon maag moom maag moom maag moom ba soixante cinq mille te xar la mat na tabaski xar ma buñ pare ma woon la vidéo bi xar mu baax la Touba man maa ko jënd hmm. waaw te incha allah pour tabaski la pour dëggal loolu. sooy bu décembre damaa jënd xar mi jar cinquante mille. xar mi ba tey matul tabaski ndax mbota la woon waaw non loo xam nga loolu yàlla mais man la man jënd naa ko matul tabaski te man xam nga man xam naa sarti tabaski xar mu mat tabaski bu mat tabaski hmm. man xam naa ko hmm. euh, moo tax ministre bi nag dama ni dafa dem daal di gis ni man waxaale naa xarum soixante mille saa njóogu ne loolu ab commerçant ko war a wax mais wërta nekk ab ministre ma ne ko d'accord naa mais bu dee ministre la dem na sañ na joxe xabaar kani bu dee nee nañu dañoo tiitoon pour tabaski xaru 60 000 am na ci marché bi. Mhm. ku am fukki junne ñaar da am xar. Mhm. léegi nag day des ci nit ki dafa yor 1 million soxla vingt xar wala dafa am yor 1 million soxla 10 xar wala cinq xar loolu day des ci moom wala mu yor 1 million yi ci xar laa koy def def ko ci buum dem ñibbi. mais su ma yore 60 000 su ma yoree ministre bu lu mu wax ah bu nu am démb démb danoo wax. si seen wax ngay jël tey boo lire journal laas dañ ne 30 000. moment maanaam moment bii nii. boo ko nattee ak daaw. jamono yi lu toll ci trente mille xar fanweeri junni ci ay xar ñàkk nañ ko non dama ko bëgg li eh, maanaam bu dee ni loolu dafa am mooy wane ne xar yi day gën a seer sooy bu xar yi bu yomb waaw euh, maa ngi tolloon ci waaw ma ne ko soixante mhm. man jàpp naa ni nit ki mën na cee am xar léegi nag mu des ci dafa am ak yoñ yox gu am ci lii bu am bu ñëwee saa yu ñëwee nga gis cuune suñu njiitu réew yi mhm. sànq dañoo laaj Sa Ndiogou ci sujet Omar bi. Mhm. mu ni ndax doole état mooy feeñ ci barricade bi wala doole Sonko. Mhm. mais bu ñu ñëwee ci événement yi su kaa xoolee li ñu am ci suuf. Mhm. war a mën a bay ba du ñu jéggaani dara. ñi koy bay man cee am dara. daaw ñaata soble saaku soble ay tonnes. la baykat yi suul fii ci soble bu yàqu. ñu bay ko fii ba pare. mayu ñu leen fuñ ko jaayee. ba ubbil bitim réew ñu ñëw di jaay seen soble. soble bi ne woon fii yàqu muy benn. ñaareel bi mooy nañ lijjanti mbirum euh, euh, kiiwu betaay bi nan vol de euh, bétail bi kii yu ñu ko woon criminalisé wuñ ko woon mais baykat lan moo tax mënuñoo am ay jur ba mën a fournir fii nii nga xam ne tey duñ jële ji Mauritanie duñ dem Guinée duñ dem Mali duñ dem fenn mm. ñoo dàq sàmm ñoo ëpp àll ñoo ëpp gàncax ñoo ëpp ndox léegi ñun suñu ministres yi ñu fal ci wàllu googu lan moo tax ñun mënuñoo am ay xar ñii nangu nañoo sàmm mën nañoo yor ay jur am nañ xam-xam bi lan moo tax chaque année ñu jéggaani c'est-à-dire suñu yoon jox ak suñu ñàkk xam-xam man gis nga suñu ministre yi ñuy fal li ñu leen dafa yomb maanaam fal la rek nga dem defi ji ay kii ay bateau ñi ngi ñëw ay xar dinañ ñëw dinañ doy loolu mooy ministre mhm. loolu mooy ministre xar yi dinañ ñëw soble bi dina doy lii dina doy mhm. mais loolu man loolu mën naa ko bu man en tant que daara bu ñu ma falee mën naa ko nañu xam-xam bi ñu am ci lu ñu moom mhm. ñu dundal yëf yi ba sukaa bu kii jotee mhm. yaa ak Boubacar ay ànd dem ba Saalum ngeen jënd xar ñëw wala ngeen dem xombal gi ñëw wala sànjari ñëw mhm. mais chaque année ñu dem jéggaani loolu pour lan dëgg la dëgg la alaaji jéggaani meeg soble mi fi nekk te kenn jaayee bu ko ñu bëgg a dem jëliwaat yeneen dix mille tonnes est-ce que jàpp nga ni balaa tabaski dix mille tonnes yooyu sax dina agsi fii si Sénégal waaw c'est que Sénégal moom réew la moo xam ne Euh, li koy indil jafe-jafe ñoom ñoo koy euh, créer di ko bay bayal mm-hmm. bu ñu démarré ci li jëm ci wàllum xar mm-hmm. euh, bi ñu commencé di jaayee xar cinquante million ak trente million boobu la problème démarré mm-hmm. parce que jaaduwut ba te ba noppi loolu la ñuy fésal ci télé yi ñooñu la ñuy filmer ñooñu jël seeni berger def ko ba mu mel ni ni mu dàq néeg ba ngay tëdd di la wan yeneen lix yoo xam ne ñu ngi ko jëmale ci ay xar ci réew mu mel ni Sénégal ñuy bay bayal loolu nga xam ne tey boo demoon ca tubaab ya dàqa yar xar nga xam ne lañuy ñuy kenn mun laa wax nu mu toll jëluñu seen berger def ca sax ay faux plafond ak defal xar ya ay écran plaque xam nga yooyu la ñu war a éliminer mm. yooyu bu ñu koy parce que yooyu day feeñaat après ci njaay tey jii yow da ngay ñëw génn fii réew mu mel ni Sénégal dañu war a natt salaire salaire yoo xamante ni bi tey boo fi amee deux cent cinquante mille daanaka ci salaire yi gën a baax nga yor. nga mën a nit mën a ñëw taxaw ne xar mi maa ngi koy jaaye trois millions ñu koy seetaan. ñooy warul ne. Mm-hmm. comprendre nga. maanaam état bi dañ ñoo seetaan dañ ñoo seetaan fépp nag. dañ ñoo seetaan ba seetaan ñu ak commerçant yi. Mm-hmm. parce que gis nga commerçant yii di wax soble bi. bërki démb bu ñoo doon jooy maanaam dañ naan état teel soble bi ëffal ñoo gaa yi ñu noggatu leen. Ah. maanaam soble bi jóg extérieur bu mu ñëw dañ koy kaas ba yow mii ngay toog ci plateau di leen ko kaas. naan lu tax ñuy def li bu ñu arrêté ba ne taxaw na ñoom ñu ne ah léegi comme soble ñëwatu ah, ah. waa léegi nag gaa yi jekku nañ leen nag kaay leen nag. ba ci xar yi lu ñu pertoon ak lu ñu mës a suul yii yii yow mi yaa koy fay. comprendre nga jëlaat prix yi yóbbu ko foo xam ni kenn mënu laa wax ban genre prix la mhm. sàmmkat yi yàgg nañoo wax ne ne gu nguur gi dugal ci xaalis ci li nga xam ni mooy càmm gi gis nga bi sunu mbokk pël yi di indi xar di jaay jafe-jafe amutoon de mm. xaru quatre-vingt mille ngan di xar la woon mhm. yaa ngi dégg mhm. maanaam nit ki da doon dem jënd ji am tabaski tranquille def li nga xam ne mooy jaamu yàllaam normal mais bi ci gaa yi duggee businessman yi yàq bopp xale yu jigéen yi mm-hmm. <laughs> nga gis xale bu jigéen boo xamante ne bi tey mën nga gis ku mel ni sukaar mm-hmm. mu ñëw fotowu cim xar naan ah bii lañ ma indil te fekk yàlla xam na ne du boobu comprendre yàq xelu moroomam yépp nag yaa ngi dégg tabaski mm-hmm. validé fekk na dur xar moomu est-ce que nga keroog dama gis benn waay boo xam ne xam nga lu mu def waa ji dafa ñëw photo ci benn oto ne daf benn bureau ne sama nouveau bureau. daal di partagé benn copain mi ngi waay jàpp boobu daan coow xool sa waay tekki na. jabar ji naan ko dee mu naan ko mais xoolal li nga am mu naan non non mais xool kii man a moom ñoo doon xool ko li mu am. waa ji dem photo oto daal di ne oh, xoolal bu bees bi. moom mi ngi ci focalisé wu ci waa ji ndekete waa ji ab gardien la. Eh. parce que bureau patron lay photo photo oto patron comprendre nga moom moo ko gën situation maanaam li ngay gis ñu koy estati loolu dafay def ay influence yu rëy ci bit mm. tey jii am na koo xamante ni kii wóor na yàlla xar xarum soixante mille moom moom lay tabaski mais bi mu lay wat dana nekk dana nekk xarum ay jaaykat yi ñoom da ngay gis xar moo xamante ne bu boo laajee prix bi rek yow daanaka la nga indi sa poche sax léegi kaay ma wax la am na ñoo xamante ne bi tey boo ñëwee maanaam bu ñu xasee ba dugal ci bopp nit ñi hmm. ne xaru xar yi nangam la war a démarrer parce que jaaykat dañ ñëw ne oh, xar moom cent mille xam nga sama bi nee na la jënd na xar moo xam ne soixante-cinq yaa ngi dégg am na koo xam ne tey bu demee ci gerte gi fi mu toll ñemewut a fay lool yaa ngi dégg ah, moom ñemewut a fay parce que léegi da ngay dem ñu ne la xaru cent mille mënta ne man maa ngi nii di wëndeelu <laughs> yaa ngi dégg gerte gu ma dem waa ji chaque jour mu envoyé ma photo gerte gu ne ma xool xar mu ma envoyé parce que ni ngay nawee sa xar man moom laa nawee sama xaalis bi mhm. li ma lay jox damay xam ne lii mhm. lu ma ñafe la lijjanti dama koy téye boo ñëwee naan ma kii naan di tuutal sama xaalis ma tuutal sama xar ne la sa xar mii méngoowut ak sama xaalis bi li ma yor dafa bari mhm. daal di dem moo tax ba léegi maa ngi pour pour envoyé dama fa mu xar yaa ngi dégg léegi loolaay léegi boo ñëwee ci gétt dama naan la euh, xar mu cent mille laa bëgg bu xarit may wan yëpp ne ma yii la yëpp yooyu yëpp doon wax lu am solo pour xar yi léegi bu koy jaay dañ ko war di parce que yeneen dëkk yu ah, bëri loolu la ñuy la a peser dañ ko war a peser ay Maroc ak yëpp xar dañ koy peser booy jënd da ngay dañoo war a jël xar mi teg ko ci balance kilo ndawal ñaata la si yàpp xar bu dee bu ndaw bu dee bu xar eh, yàpp xar 4500 après léegi ñu multiplier ko mm-hmm. yaa ngi dégg mais fi mu toll nii tey koo ko fi wax mu bañ. waaw dëgg boo ko jëndee ñaata la. waaw mais loolu la war a doon. 3 kilos noonu lañ ko war a jaayee. waaw noonu lañ war a jaayee xar mi parce que xar dañ ne kilo ndawal bi mi ngi jar nangam. 4500 léegi nag mais dañ koy bañ. te loolu état mën na ci taxaw dafa am yoo xam ne état bu mu ñu ëffal ak gars yi. Mm-hmm. waaw nañ daf cee war a taxaw am yoo xam ne dafay teg ne mbir mi nii lay demee. waaw. tey jii bu ñu taxawoon joxe kii boo xamante ni kenn ñemewu fee jaay yenn xaalis parce que yenn yi day yàqum réew tey gis nga yenn yi mooy tax ku jóg sax indi yeneen xaalis yoo xamante ni kenn du xam fu xaalis bi jógee mm-hmm. ci kii ci kii ak yooyu il faut ñu bàyyi joxe loolu saa euh, damay wax ni que euh, comme li nga wax ni am na loo xam ne lu bari loo xam ne complexe la mm-hmm. am na lu bari loo xam ne complexe la mm. tey ma tey ma tey ma tey ma am xaru 60 mille di jël ak xaru 200 mille di ci fotow naan nuy mën naa ko moom te fekk moomuma loolu loolu ci complexe la bokk mm. tamit ñi nga xam ne ñoo ñaay ñooy jaay soble yi am na ñoo xam ne amuñu soble mm. amuñu duñ ko jëndee ma est ce soble moom 15 mille waaw euh, xalaat nga xalaat nañ loolu. am na loo xam ne yeneen ak yeneen. waaw waaw te yeneen yi xoolal boo boo jëndee soble kilo bi 700 nga war cee jënd 5 ñaata la war a mel. ah nga war a jënd pomme de terre ñëwagul duulu war a dem ci xar mi ñëwagul donc nga jaayee loolu kon nan lañu war a def metti na nan wax ak doomu aadama yi parce que am na yoo xam ne complexe la nan nanu jéem di liggéey ci suñu réew mi ko defee lu nu man de naw la jaay ah, ah, ma paree kon dinañu dinañu xool nu na ku ne ci buñ paree ma wax leen turam nee na mi ngi xar moo xam ne nii nii nii. jar na quatre vingt mille. mooy prix normal. mais bu tabaski desee ñetti fan. fii la koy teg ku ko joxul deux cent mille franc du la ko jaay. toogal la wan ma xar mi. bu ñu paree nga ñu dem ñu dem sooy bu. ah ma yow ma boole laa ko ah, ma boole laa ko ma boole nee na kooku bu nee ñetti fan la des da koy jaay lool de. d'accord d'accord nga maanaam actuellement. ah 200 léegi la. nii mais à trois waa à trois jours la tabaski waa. xar mi looloo ci jaadu. mais bu desee trois jours mu bu ko génnee 200 000 la yokk ko allah bu ñu paree rek ñu jéem dem mhm. xooli kooku parce que tamit ministre bi lu mu wax wax dëgg yàlla ëlëm na yenn. man la yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen waaw d'accord euh, sukka bu ma kenn moroo de xar moom man mi nga ko am ay waay kër yoo xamante ne nii fi mu toll nii euh, pour ñu lijjanti problème ah yow yaa ko bëgg. son yi bu man maa la njëkk a wax balaa alaaji. nag yow amu ko a fii du daral. Eh, eh, man am naa fii du daral man am naa am ku ma ko bëgg a may. <laughs> ñëwal. am mais alaaji nag. alaaji bu am na xar donc euh, ku naroon jënd xaru cent deux cent cinquante mille boo jëndee ñaar maye benn bi yàlla suñu boppam ma ne bàyyil tappale. fii du daral fii du waxaale aussi ñu waxaat encore une fois rek état bi nañu jàppale baykat yi parce mm-hmm. tamit tamit mhm. ab baykat mënul dem sonn bay bëgg dee bayub sobleem teg ko bëgg koo jaay yow nga bëgg a dem ubbil marché ñi nga xamante ne nii moo di importateurs yi pour ñu mën a ñëw indi seen soble su ko defee soble bee amuñu sax fuñ ko mën a dencee mhm. denc bu yàgg bu nga xamante ne nii même bu bee jeexee dinañ mën a jaay seen bos dañuy mujj obligé dem di ko mu yàqu ñu koy suul loolu aussi pertement bu rëy la mhm. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax su kay kon nii lañ leen indiloon tey ci actualité du borom kër nga yal na la yàlla suñu mboom may lu nga tabaski ak sa njaboot jàmm ak salaam tamit yàgg ko féete si barke Seydina Mouhamed di leen jox di daje suba ak jàmm incha allah allahuma amin euh, maa jigéen euh, amati na solo lool macha allah ci li nga xam ne rek moom nga indi noonu rek euh, donc dañuy dem régie daal di ànd ak moom Momadou ci li nga xam ne rek moo di suñu sponsor yi la seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak ay bu jox ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yi ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asma bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay ferme li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee jot xaalis bu gaaw te wóor la waaw waaw kàppe dee si na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew mi la eh kàppe daal mi moo wóor li ko ko yore dégg waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw kàppe suñu gan gi yegg si na kaay kaay kàppe ma kaay kàppe ma moom sa bopp moom sa alal yombalal sa dund. Pour la première fois au Sénégal, le ñaata lañu ci Sénégal. ñaata góor ak ñaata jigéen ñoo am fii ci suñum réew. ci lan la yëngu seen njàng fan la toll. ñaata mag ak ñaata ndaw noo fi nekk. juróomeelu recensement général di lim buy tax ñu xam ñaata doomu aadama ñooy yeewoo fii ci Sénégal ak seen dëkkuwaay mooy tax ñu mën cee tontu fukki fan ak juróom ci weeru mai bay fukki fan ak ñeent ci weeru juin 2023 lu toll ci weer ak ñaari junni ak genn wàllu agent recenseur ñu jël leen fii ci Sénégal tàggat leen ci liggéey bi ni mel dinañu wër réew mi dem fépp ci Sénégal ñu leen di ñaan ngeen dalal leen ak jàmm waxtaan ak ñoom te tontu ci xibaar yi leen di laaj mbir mi lee ñu koy amal fukki at bu nekk ci Afrique ci réewum Afrique yépp dana tax ñu mën a xam ñaata nit ñooy yeewoo fii ci senegaal ñaata ndaw lañu ñaata jigéen lañu walla góor xam seeni dëkkuwaay ak ci yan anam lañuy dunde xibaar yi ak tontu yi ngeen di joxe dana tax ñu mën a xam yan jubluwaay ak yan taxawaay lañu war a am ci lépp lu jëm ci mbirum wergu-yaram njàng bi alam gi ak tawféexu askan wi ba dara du ëpp loxo lim nañ mooy bokk na Alaaji Mamadou Diouf jërëjëf topp ak Mouhamad Fadal euh, saa ñu àndoon ak suñu sponsor lu ci mel ni li nga xam ne rek moom moo di KPay transfert gën doomu réew mi moom ko ñu ciy woo sénégalais yépp ñu daw wutali ko ginnaaw bi nga xamante ni bii jaaxle nañ ci ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëw di watat suñu alal jii di yóbbu mu bari lool na dërëm bi des ci réew bi kàppe nag bokk na ci ñi nga xam ne ñooy desal dërëm bi ci réew mi ak kan. ak solution mi solutionné. ah moo fi man garab yi gën moo ko yor sénégalais yi ñoo ko wax du waa solution ñoo ko wax solution dañoo taxaw woote ne leen dikk leen sénégalais yi daw wutal si ñu waaye ñi ñëw ñëpp nee nañ alhamdulilahi bi ngeen fi amagut xaw nañoo dee ci ay tappale ñenn ñi sax dañ daan joxe ba noppi du ñu jot garab waaye solution moom da koy suivre di la topp. li nga xam ni noonu la yëfi di doxee. solution daal ca kaw ca kaw ki ko mën a ki koy jéem dina benn ak waa ANSD. waaw ñoo ñooy xool nit ñi ñaata lañ. ndax ñaata millions yi sénégalais lañ. Mhm. ah ñaata million yi sénégalais yooyu nag ña nga ca di faram fàcce. kon boog bu ñu paree jox ñu résultat yi ñu xam ñaata góor ak ñaata jigéen bu boobaa nag jigéen ñi daal de xam ni ëpp nañ góor ñi lool lool lool lool nañ ubbi bunt yi lool lool lool lool ku amoon ñaar am ñett ku amoon benn am ñaar ku am ñeent ñett am ñeent ku am ñeent toj sa bunt islaama la jëf bu lool rafet na di rajëf rafetati na macha allah ñu àndoon ak ñu àndoon ak sponsor leader yi kon dañuy dem régie daal di ànd ak Assane Mesere ci doxantoom xamante ni yéen a ngi ànd ak euh, émission bu mag bii di takk soo ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di rafetlu ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ñun tey jii nag euh, ni ma koy waxee rek ñoo ngi nii wàtt nii si mbedd mi euh, li si mbedd mi ñu fas leen ko andil waaye ñaari point yoo xamante ni lu gàtt la rek muy match Angleterre ak Sénégal bi nga xamante ni amoon na démb te Sénégal mujj gagné Angleterre teyit lii nga xamante ni mooy doxu ñaxtu bi waa Walfadjri nasoon waa vint 24 waa taxawu kii ñoom ñëpp tasoon ay doxu ñaxtu daan par force danañuy doxu ñaxtu par force doole mbaam léegi préfet aaye nañ leen ko léegi nag ñoom danañ ko def wala duñ ko def ñu ngi sunu kanam tabaski gi ñëw na ndax euh, doxu ñaxtu bi mën na fee rek le dara wala munu fee rek le dara daaw gis nañu ni ñaanoon nañ ren ñi ngi ñaanaat ndax euh, préfet bañ gi mu bañ dañuy taxaw ah bañ na kat nañ waxtaan si diplomate wala dañ naan ko préfet li ngay bëgg duñu ko def dañuy yëngal gësëm génne Ousmane Sonko lu mu si man di doon danañ laaj gaay ba xam naka lay demee maxi Sénégal Angleterre Sénégal dóor na ko 5 5 2 wala xam naa daa sori foofu. dem gisee nañ waaw premier mi moom gis naa ay jeu kii tactique waa gars yi passante nañ duggoon nañ premier mi bi deuxième mi-temps tamit ñëw ñu terminé ko waaw muy défense bi milieu terrain bi attaquant yi. na xool li muy teg ak ñi nga xam ne ñoom lay génne waaye ñu laaj ko si doxu ñaxtu yi nga xam ne nasoon nañu ko fii ak tabaski nii fii ak tabaski dañuy doxu ñaxtu force ba tabaski du amee préfet tere na leen ko noo gisee loolu yi. injustice la am si dëkk bi mais affaire tabaski moom dafa war a am quoi. parce que Ousmane Sonko fi ñu ko tëj vingt vingt jours xam nga vingt trois jours ñoo koy tëj nañ ko si biir këram loolu dafa metti sans téléphone sans dara communiqué ak kenn waaw benn nit moom mu ñuy tere def tabaski mais si yoon quoi ñu bàyyi gars yi def tabaski si ak jàmm ku bëgg dem tabaski sa dëkk mu dem tabaski dëkkam. waaw gars yi dañ ne bu Ousmane Sonko wàccee si escalier yi wéq ñu wàcc wéq. bu Ousmane Sonko lekkee bañ a dugub ñu lekk bañ a dugub bu Ousmane Sonko lu mu def ñu def ko léegi ñu barakaate ko euh, mu nërta tabaski léegi patriote yi ñoom it kon duñ tabaski noo gisee loolu yi. ah ku ne sa bëgg-bëgg rek ah Macky Sall bu mu nekkoon fii avant mu moom la ñu topp léegi yaa affaire bi carte bi dëpp Sonko kaay yëpp Sonko lañ faral jeunesse bi yëpp Sonko lañ faral. ànd nga ak ñoom si ñu bañ a tabaski patriote yi. ah ñoom la rek mais man daa man man daa damay tabaski. ah préféré dama jàpp ne xañ na lu gën si askan wi lay def rek ña nga xam ne ñoom ñoo ko organisé buñ buñ mënoon a may nit ñi laal bu tabaski passé bu tabaski passé buñ ko mën a arrêté si ñu ko jamono ji laal benn benn dënn lañ am mooy tabaski. mais daaw daaw lii dafee amoon bi fi lii ameet ñu daal di ñaan ni nañ ñu may ba tabaski jàll. biñ ñaanee jaaykati xar yeeg jaaykati tiis yeeg ñëpp dem ñaan ni may leen ñu ba tabaski jàll ñu may leen tabaski jàll mu continuer di amaat ba tabaski gi ndax bu ngeen ñaanee tabaski gee di ñëw du ngeen ñaanaat. ndax du ñu ñaanal man sama xalaat bu gàtt mooy ñoom dañ ko def pour politique rek mais gëm naa ne la waxtu duñ ko def ndax ñoom ni ñuy ñun ni ñuy waajale tabaski ñoom ñu tamit noonu la ñuy waaje tabaski rek ah, waaye fi ñu tabaski dañuy tabaski de ñoom ñoo ñu gën a soxla sa ki bi dañuy wax rek barakaat ba nag loo sa xalaat barakaat mooy barakaat buñ barakaat Sonko barakaat bi ah xam naa ne neexut kenn de bu ngeen defoon yéen ñu ne ci terrain bi di def reportage ba ngeen laajoon cent personnes quatre-vingt-dix yi yëpp ànduñ ci déedéet moo tax ñu ne ñoom duñ tëbaski ah na ñëpp dem rek moom ñu bàyyi ko foofu mu tëbaskeem. ba danañ ko fekkaat bu ñëwee. ndax dañ ko fa fekkaat bañ a fekk aywa dañ ko fa fekk ba neexee yàlla. Sénégal Angleterre démb nan la gisee match bi ak ki nga xamante ni mooy Aliou Cissé taxawaayam. Hmm? Sénégal Brésil la. Sénégal Angleterre wala Brésil. Brésil la woon Brésil la woon. ah Brésil la woon ah, man Angleterre la sax. Euh, noo gisee maxi dem bi ak entraîneur bi ak staff bi ak li ñu dese si ay maxi ak maxi dem bi lan lay représenté si Sénégal gagné euh, euh, kii Brésil ah. Brésil ok. ça mais li ñu mën a rectifier tuuti Aliou Cissé mu changement yi muy gaaw quoi parce que nit ñi rek la quoi dañuy sonn. non il man waaw kooku plus la. parce que kooku Fadiga am na doom mais ñëw woowuñu ko bii paa woowuñu ko. xale la waroon na mën a ñëw nag mais Sabaly aussi mag mu am ñam la neexul a jël place de. jërëjëf père Mamadou Seck ñu ngi koy sant bu baax di koy gërëm di gërëm Abdoulahi mi nga xamante ni moom laa àndaloon waaye Abdou Top si montage bi ak ki nga xamante ni mooy Papa Kane Papa Kane nag ndeysaan démb da doon wuyu téléphone am ñu di koy jël kon Papa kan jërëjëf ndax man yaakaar naa ne Papa kenn ñi mu wut a moom di ko jaay doole waaye nag dañoo jàkkaarloog moom jaay ko xel. ndax day doon dem di wuyu ab téléphone am waa ji ne ko aal ma téléphone bi mu aal ko téléphone ba waaj a teg sa noppam continuer di wuyu na waaja nag ka Pape doon waxal naa ko waaw dëgg la kay Pape na ko du paap de nangu naa téléphone ba euh, sa paap kon Pape jërëjëf ñu ngi lay masawu bu baax a baax si waajoo ji nga xam ne yor na uskutóor fekk la sa oto ngay wuyu téléphone mu nangu téléphone ba kon ñu ngi la si masawu di leen gërëm di leen sant di leen balu àq te di leen ko baal mi ngi noonu dañ doon laaj Sénégal Angleterre laaj nañ dégg ngeen ñu si wax waaye ñu wëlbatikuwaat di leen laajaatoon si doxu ñaxtu yi nga xam ne jàppoon nañ ko pere préfet tere na ko léegi nag ki nga xamante ni am nañ ko ci neen na nañ ñu may rek ñu tëbaski ba pare ñu dekkalaat kon nag mu ngi noonu yéen ay seet wasalaam. <laughs> Assane ñoo wax ne bu ñu commencé. <laughs> ñu dekkalaat ay Assane. mu nekkoon doxantoom boobule euh, alaaji ji nga ko gisee. waaw ah, macha allah. Mhm. am na solo. am na solo loolu macha allah Omar. Ah, am na solo ah, am na solo li ma ci gën a intéressé rek mooy waa ji ne xaw ma day da doon jaay doole ñu jaay ko xel. waaw mhm. xam ne loolu dafa am solo wax boobu asal wax bu gàtt la mais am foo xam ne xel moo ëpp doole waa macha allah macha allah sooy bu ci doxantu asal musara bi. am na solo. am na solo moom nay nay bañ nay bàyyi di jaxase pitaal yi ak. waaw Angleterre waaw. waaw Sénégal football la ak ak Angleterre defe naa Brésil la dem. Brésil voilà. 4 ah. <laughs> waaw am na solo su kaasa moom wax dëgg yàlla lu mu def day neex parce que comédie bi mu siy boole moo tax muy saf ñëpp euh, vraiment <laughs> kontaan nañu. sama bi seen match waaw ndax nag du football du seetaan <laughs> te boo ko waxee mun la terrain démb toj naa ko te tojoo fenn. man numéro 9 bu sax sax la laaj ma waa daara ja. déedéet nee na numéro 9 la kii de barki yàlla dara mun. mu ne lan la. numéro 9 la ah, loolooy cuune. cuune boo dégg neuf. man maa daan dugal de laaj ma waa daara ja. man waa daara ja mu ne la neuf la libéraux la. maa doon dugal dugal rek laaj. en tout cas war nañu leen a testé de dugg yóbbu leen fii si télé ah, xaar ah waa solution waa solution ak waa Walf. waaw léegi léegi kay waa Dakar matin wala waa kii bu ñemee solution nañ ñëw. waaw ñun ñu nekk ñun ñun ñuy kii. waa sans limite. wala waa Seneweb wala waa Dakar matin bu ñu ñemee. nañ ñëw ma organiser suñ suñ code sa ngi nii. ñu bàcc leen code sa ngi nii bu ñemee nañ ñëw. damaa ragal ñu dóor leen ndax ñun. Ah, si nañ ñëw macha allah waaw kon nan ko nan ko dox. Mm-hmm. Euh, donc ñu dem régie daal di ànd ak li nga xam ne rek moom moo di son yi bu ci kii li nga xam ne moom moo di victime di net. Euh, son yi bu. Adja. tey lan nga nu indil. Adja tey damaa ñëw ci ñaari mbir bu ci xajee bu ci xajul ñu jël benn ba suba. Mhm. comme man léegi dañ may nat dañ may xoj ñi ma liggéeyal force. macha allah baax na. tey dañoo jël ngóor sii nga xam ni gàddu na fi saak sol fi yëre yu bënn sol fi yëre yu bari couleur moom daal lu nekk sol na ko fi ñu ni loolu lii muy sol nag borom ñaari tur yee koy sol. Mhm. ba tax na saa su nekk da doon génn di weddi di weddi ba mujjoon daggateeb saak ni man sëñ tubaa rek laa yaakaar kon boog duñ yebee sëñ tubaa ci man mhm. muy Wally Seck ñu dem ba yàgg barki démb mu demoon France tëgg am ay nit yu ni ko doo fi tëggee mu ni dinaa fi tëgg ba loolu réussir mu tëgg mhm, mhm. man mii bokkoon naa ci ñi ne woon kat nañ bàyyi jàmbur mu liggéey ndax man mii damay liggéey waaw malgré que manifestation am na waaye maa ngi liggéey ginnaaw bi loolu yëpp amee nag dañ ko invité 2STV barki démb topp dinañu wan wala moo nañu wan euh, photo bi nga xam ni ñu ngi koy wëndeel ci internet bi ni waali dàll yi mu yor wala yi mu soloon dafay promouvoir mbirum borom ñaari tur yi. Mm-hmm. ay la yéen man dama ne woon sax mbirum ndaw man dama ne woon laax laa ci reere sama yoon nekku ci waaye comme mi ngi ci internet bi te man yéen a ma affecté ci internet bi. Mm-hmm. ni ma koo ku ngeen gis ñu fay yàq deram indi leen ko fii ma gis ñu yàq deram ci internet bi ni waalikat mbiri góor jigéen képp lay yor. man ni naa ko indi fii photo bii ci internet bi lañ ko jëlee ñu ne weddi du ragal seetal sa bopp la. waaye li ci li tax ma indi koy tamit bi photo bi génnee booy yi dañuy focus 2024 lii lépp diversion la. ñu naan daal booy ñun lañ bëgg a nelawal yóbbu ñu ci beneen débat Wally Seck. Mhm. man sax première gi dama ne woon daa am ñuñ kàmbal bëgg a am ñuñ jàppaat ndax xam nga dañoo amoon ku ñuy wax bàcc fay ci sama groupe ba. Mhm. bàcc boo ko tooñee ci groupe bi nga def ko loola metti du la wax dara day bàyyi ba nga def infraction feneen. mu jaare fa retiré la léegi nag ma ne woon mbaaru daa am ñuñ soxla ba tax ñu indiwaat créewaat yeneen falan pour bëgg ku ci dugg ba pëtaxit ñu jël la yóbbu ne ay la yéwén ci mbirum waali mi lañ ko yóbboo kaso yooyu yëpp lu ci nekk mën naa am ay xalaat la Omar ndax jotul ñu leeral ni kat am na couleur góor jigéen wala amul couleur góor jigéen ñu passé débat boobu mu féete à côté wala itamit bu fekkee ni dafa am ñu ni Waly sekk day sol loo xam ne day nuru lu mel noona bu dee lu am la moom it mu jël ci yeneen i mesure mais est-ce que jotul itamit daal comme ay at a ngi ni ñu ciy wax ñu dépassé mbir moom jël ko teg na le Sénégal jublu ci leneen. Mm-hmm. Mm. xam ne depuis quelque temps daa am lu ma seetlu. waaw dafa am ñoo xam ne dañ fi nekkoon mais da ngay sentir ne fi jamono toll ak actualité. Mm-hmm. parce que actualité bu ñëw day daa am benn actualité bu muy suul wala mu toxal benn. waaw depuis deux ans. Mm. boo defee remarque man ci sama seetlu. mooy actualité Sénégal dafa politique politique politique Sonko Sonko Sonko Sonko ba beneen actualité boo teg rek boobu da koy yóbbu. parce que ay waali am na jamono ñu dox ak ñu doxul nit ñi dañuy xëy ci ñoom di ci kon di ci fanaan. Youssou Ndour ba ci mbër yi léegi mu am benn actualité bu ñëw nag puus leen. man loolu moom da xaw naa ko sentir tuuti. waaw boo xoolee waali depuis quelque temps. ci côté communication da ngay gis ni dafa li cee gën a investir. communication. te am na benn jamono soxlawul woon di def communication dañ ko kanaan defal léegi nag bu dee ni coowal dàll yi parce que du ma ko juger quoi nii dàll yi dàllu lii la wala lee wala lee foofu moom du ma egg mais damay bañ nit ñi daanu ci di ko defal communication parce que njëkk nañ fi indi mbiri ak amat Thiou mais yooyu du dox parce que mbiri problème personnel la entre deux personnes yoo xam ne mais avant coow loolu Wally presque déggatoo ko lu bari di nga dégg ay waaye mais dégg Wally nii muy communiqué nii wala dara mais créé nañ problème boobu pour mu génn di ci wax seetloo débat bu mu dem toog loolu sax la nga koy posé question sa diggante amee Thiou sa diggante lii ak lii bi mu fi mujjee dem Paris ak gars yi doon yàq concert am peut-être loolu laaj na explication mais ñi doon yàq concert am ak ñiy wax cool dàll yi yëpp pour man waa lañuy dimbale. Hmm. Mhm. parce que da ko soxla parce que depuis deux ans dafa am ñoom fu nekkoon nekkatuñ fa. ok waaw loolu moom sentir naa ko parce que defatuñ actualité ci dara léegi nag am na débat yoo xam ne boo leen dugalee nag nga leen di teg au devant de la scène te ñi leen. te waal yi bu dee coow yi xamul daa man amul solo ci waal yi hmm. taxul ñi ko jàppoon bakku. d'accord kon jarul. coow mi ngi noonu ma jigéen. Mm-hmm. dàll yi ñu gis fii léegi de boo xoolee suñu décor bii sax dangay nga gis couleur yu mel noonu. Mm-hmm. kon est-ce que couleur existe na. Mm-hmm. maanaam mm, couleur yi nga gis ca dàll bi. suñu décor bi couleur yi am na est-ce que kon couleur am na. est-ce que réellement kon li Omar wax amul est-ce que dafa am communication bu bëgg a def mais jàppoo ko ni dàll yi kon xëy na ay manipulation wala bëgg a diversion am na ci. waaw euh, son yu couleur moom couleur la rek mais dafa am euh, yenn couleur yoo xamante ne ni suñ ko boolee nga dajale ko gis ko rek dafa am fu mu sa xel fu muy daw. Mm. muy euh, daanaka mais couleur daal beeg suñ couleur yi ñoo niroo. da waaw dañ may bàyyi <laughs> ma wax la. daanaka am na couleur boo gis rek ñu dajale ko rek. Mm-hmm. sa xel day daw si benn sens. yow nga leen di defal boo solu seen t-shirt yaa ngi sol seen saak. mais wala yaa ngi sol tubéy boo xamante ne ni. saay soo génnee rek nit ñi dinañ la si ngàññi loolu aussi góor yàlla du ko def te moom góor la na def yu fi góor am na yenn yoo xamante ne nii doomu jullit moom moo ko warul def man moom fa dëgg yàlla mere naa ko torop si yi muy def nii très franchement ah kon de eh, xam naa ne kon boo fi jógee bay boo nga wax kon ñu dindi suñu couleur yii ndax couleur yii moo ngi ci dàll yee yam non non couleuru daal couleur yi waaw ah. dàll bi wàlli benn la ak couleur bi t-shirt bi wàlli soloon sec benn la drapeau góor jigéen ñi benn lañ kon donc moom moo ngi def promotion bi. non du benn dañu waxante c'est pas la même chose. non non non il faut pas confondre li ngay confondre ni bokkul. couleur benee ak mm-hmm. couleur bii nii nga gis. couleur arc-en-ciel ak lii couleur arc-en-ciel non seulement arc en bi si léegi pour nga gis nit ku sol ko sax am fi su sol ko sax te liiwul dañu naan la yaa ngi promouvoir moom mu koy def nit ñi di ci wax nga war a mën a noppi te bàyyi yenn yi te nekk si li nga nekk. d'accord jërëjëf ah. Diop. Euh, soxna si man de bu ma dégloo ma jigéen mhm. dama naan kon débat bi mi ngi ci internet bi mhm. mais man li ma jàppoon daal mooy dañu bëgg a kii suñ xel yóbbu ko feneen mhm. mais jàpp naa ni couleur yi ñu dajale ci dàll bi bokkul ak couleur yi may gis man ci LGBT waa dëgg la mais man may gisuma ko ci parce que marron la jaune bleu waaw marron la euh, jaune kii mën na bu fekkee moo Modou mën nga ko indiwaat sax wala euh, bleu la ak marron ak jaune te ku ne am nga am te ne am nga booy def sa dara ku am nga envie la neex te ku la lu leen voilà mu ngi nii xaaral rek déglu ma xoolal marron bleu ak kii la du arc man mës naa euh, bleu euh, euh, mange ku ne ak waaw non dama ne ma jigéen dama ne xoola dama ne dama ne waaye la ma jigéen marron la mange xoola ku ne ak li la neex zone la ak ak bleu tricoire waaw ak bleu ak vert ci diggante bi xam nga artiste la te artiste artiste day day day doon loo xam ni euh, lu la neex rek nga ci ngay ngay moom ci style boppam. d'accord toog moom wax na sax ni wax nañ fi waxu pain. Mm-hmm. ma bàyyi pain di waaw di sol balage donc moom ci li mu bëgg moom ci loolu na la la nekk. donc bu fekkoon moom day promovoir li nga xam ne rek moom moo di homosexuel euh, talu ko man pour man pour man Wally Seck loolu du ko def. parce que am na envie. moom est-ce que woon daw coow tuuti. déedéet mais buzz nag bu fekkee da nga bëgg buzz nag. bu fekkee da nga bëgg Wally dafa am Wally dafa toll foo xam ni Wally Seck la c'est Wally Seck. léegi ba da ngay def lu nga. non non non que est-ce que est-ce que déedéet mais est yàqamti Wally def dara ñu ŋàññi ko. mais loolu la war a bàyyi. non non non est-ce loolu hommage. Euh, est-ce que moom bëggul loolu. bu fekkee tey da ngaa bëgg da ngaa nekk say morom. chaque jour boo ko bëggee maa jigéen yow tamit nag loolu loin de ah, man de dëgg man parce que ku ne am nga loo xam ne moom nga tey moom mi ngi nii ay rastaam moom la. estilu waali estilu waali la. d'accord ko def ak ñeneen def moom moom moo koy def ça n'engage que. c'est pas la première fois parce que ku ne ku tey di nga ah, sol naa fi benn robe boo xam ne robe bi dafa am fii kii nii ma sol ko ñu ŋàññi ma ci sa robe boobu ba tey solatuma ko. mooy bi ñu dafa arc-en-ciel mooy boobu noonu ma soloon te saa te loolu sax aw kii wu ma woon sax prêté wu ma ci attention. Mm. mais man bi ma ko saa waxee defatuma ko mais moom bu fekkee ni ngi wax mi ngi def mu ñuy wax mi ngi def tamit loolu moom la engagé. engagé wul keneen. jërëjëf mm-hmm. Alaaji. Ah. coow li da ngi bëgg a bari toujours daal waali ak waa réew mi couleur mooy seen problème nee nañu nag dafay defal li nga xam ni mooy borom ñaari tur yi euh, promotion est-ce que noonu la demee. waaw man de ci li nga jàpp wax dëgg fa yàlla sama yoon newut ci lu muy sol mu ko neex na sol waaw euh, business la sama yoon sama ngañ newut ci ay colkoom mm-hmm. du dëkk mm-hmm. bu dee moo koy defal moom xam na bu dee defalu ko moom xam na mm-hmm. waaye li xew ci jamono ji mooy ñëw musiciens yi bu ñu deful ndànk ñu ngi ci yoonu fay fay parce que ña leen daan toppandoo démb. Hmm. màgg nañ ba yeewu xam-xamee ràññee. naan focus. xale yi soog a ndaw. vise yi la ñu topp. vise ah, <laughs> yi. vise ma ñaari son de la yor di wër réew mi. ah neex na de ñaari son de. Ah, ah, mais mais ñu keneen ay daaru. vise mais mais mais moom la xale yi. topp booy boobu ku nante la. non dafa neex ñu way ñaari sooy bu jeexee ñu créé fa ay daanu yéesi daanu jël booy bi départ. <laughs> waaw mais xam nga moom lañ topp euh, comprendre nga. Euh, loolu mooy li nga xam ne mooy li ëpp solo parce que da nga ko wax ci njëlbeen bi. waaw ne xaw ma booy dañ ne focus. Mm-hmm. waaw maanaam booy yi dañoo màgg xam ràññee. Mm-hmm. maanaam li nit ñi doon ragal am na ay jamono dañ doon wax ne. Mm-hmm. Euh, bu fekkee ne mën nay def li mën na influencer jeunesse bi jeunesse boobu nag jeunesse bu conscient lañ. man sama xel dal na ci ñoom bu ko neexee yii mu wut ci ay garabu bëgg bu ko neexee mu wut ci lu ko neex du def ko man sama yoon néew ci bu ko neexee mu wut ci kaala. waaw moo léegi nag léegi moo tax ma ne est-ce que bu ñu toppee couleur du ñu am problème. man xam nga <laughs> mbir yi moom. ma wax la lenn parce que zone ak bleu ak vert fu ne nga koy gis. nekkuma ci ay lii ak laak lële. jox naa. Mhm. yaa ngi dégg mais li am solo daal mhm. mooy lu ko neex na def. d' accord <laughs> lu waay ren ci sa loxo lay naaj. kon mi ngi noonu gars yi nee na focus waaye ñun rubrique bi du tee nag lu ñu gis ci internet bi muy wëndeelu. Mm-hmm. ñu jël ko indi fii toog waxtaanee ko ndax ñoom affecté ca réseaux sociaux ya bu subaak jàmm ñu ñëw ci euh, Amadou Ba waaye du premier ministre nag Amadou Ba Pastef am na ay kàddu yu ñagas a ñagas yu mu yëkkati yoo xam ne jëmale ko ci Cheikh Yérim Seck ma ngay wëndeelu ca réseaux sociaux ya subaak jàmm daan ci dikk. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah macha allah son bu am na solo li indeeti ci li nga xam ne rek mooy ci internet bi am <laughs> focus 2024. <laughs> focus n'est pas. muy euh, focus mu bind ci focus. <laughs> allez jërëjëf euh, donc ñu dem régie daal di ñëw ànd ak euh, Aji Sanjogu ci Nepad musical. <laughs> jërëjëf moom <laughs> euh, jërëjëf Alaaji ah <laughs> donc ñu dem ci li nga xam ne rek moom moo di nappaat musical tey nag benn rek la ñuy daal di jël kon ñu jël ki nga xam ni rek moom moo di euh, Déthié Fall. Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye Mbaye nuyu nañ euh, fay nañ la. Mhm. di la nuyu di wax di ñu ngi am mbégte ak kontaante. Mhm. di nuyu la présidente de la république son excellence le gardien de la constitution. Mhm. Serigne Mariam Faye Sall. nga xam di def ko bugg mu bugg ko. danga maam bàyyi Amadou xaritu Poutine. Mhm. danga maam le président Macky Sall mi nga xam ni bi mu demee dafa xool Poutine Poutine xool ko mu wax ko wax yi fu laak wax yi fay da ne ko arrêter bombardement bi. Mhm. lu kenn musta wax Poutine président wax ko ko. ne ko arrêter bombardement bi 18 18. 18 la ko wax nga xam ni Joe doon sax dafa envoyé Macky fii lettre de félicitation. Macron it envoyé ko lettre de félicitation. macha allah. man gisuma loolu de man li ma gis. waaw ab vidéo président topp kilifa gi ni ko kaay. loolu ak dem nuyu. nañ nañ photo gi fekk na vidéo montage la waaw ah, d'accord montage la jërëjëf Ndiaye léegi nag ñu waxtaan ci ndax temps bi danoo xoj mm-hmm. léegi euh, mbay li tax préfet bi bañ li nga xam ne rek euh, moom moo di manifestation yi war a am ci jamono ji avant ñoo tabaski li tax waaw loolu du yoon mhm. wax dëgg fa yàlla parce que dañoo jëm ci feet boo xam ni feetu tabaski feet bu mhm. mag la mhm. euh, jékki-jékki ngeen ne gars yi wax ni dañuy yëngal te xamuñ ni sërica président bi mu jógee euh, li si indiwaale na sërica ba mu nucléaire eh! sol air sol sol air bombe nucléaire sol air sol sol air boobu day topp opposition maanaam day fa xàmmee opposition ak li nga xam ni moom la ñuy tuddee pouvoir. Mhm. bu président toogee fi mu toog noonu bés bu doom bi opposant bu jiite manifestation bomb bi nii lay waree dina la topp. Eh? bomb di la was di la seet. la xam nga luy ah, bomb. bomb bomb bomb nucléaire sol air. sol air. Mhm. xam nga loolu luy loolu sol sol air. sol air. <laughs> sol air sol sol air. mbay mbay gis nga bombu nucléaire boobu. waaw léegi préfet nee déedéet. ñoom nee nañ ay wan nañ fii la affaire bi gis nga affaire bi amut CPI amut CPS. CPI dama ne ñun dañoo ragal CPI. Ah, ñun seen yoon ci seen yow xawaan baranko xawaan baranko di sosal nit ñi di waxal ñi loo xam ne dara amu ci. Mhm. di sos. di créer ay inventation di wax daan way li am Sénégal kenn mësu koo gis moo ñemee yàlla. waxal ci waxal ci missile sol sol bi. missile sol sol missile sol air bi. missile sol air la boo xam ni. sol air bouton missile la bul ko weddi. bombe atomique la. mbay kenn weddiwu la de. waaw yow fi réew mi toll sax. cité góor góor gi nañu nañ maa ngi wax minita ñi nekk cité góor góor gi nañ def tere attention. Mhm. parce que bu fekkee ne jéem nañoo autorisé ñoom nañ gën def communiqué ne manifestation bi ànduñu ci. Mhm. mooy ñu dëkk yaa ngi dégg. ñu dëkk si góorgóor gi. ñii nag man dégg naa ci am na ñoo xam ni dañoo bukk leen jàpp pour Tabaski gi ñu échappé ko <laughs> waaye duñ leen jàpp dañ leen di jàpp ba téye leen bañ xam ni jàpp nañ leen ñu yóbbu leen seen kër <laughs> kuñ jàpp yóbbu la sa kër. ne la xarum tabaski. ba pare barricade la tabaski ak seen militants yi. la xam nga ñu ci bari. Euh. seen militants yi bu ñu leen ñaanee xar dañ naan après le kii le 26 le 26 dañoo bugg le 25 ñu dem tir ñu ñu tëj leen. Hmm. waaye duñ ko nangu ñoom ñii ñëpp dinañ leen jëpp yóbbu leen ba ci leen permanence teg leen fa vidéo ko partage ko ne ñu ngi ci permanence. nga ne noonu ah, liñ du xam naa ko loolu la bëgg. dama ko wax président Macky ma ne ko gis nga ñii dañoo yeewu. fi mu toll nii xam nga temps yëpp. Mhm. seen militants yi yi xam nga parti politique yor ko yombul. Mhm. bu Pastef donc moo yomb parce que ñoom ñooy dajaleen waa ji di ko jox waaye yii moom yow yaay parce que gars yaa ngi wax xar. yii léegi dañ lay woo dëcce soble bi matagul de dëcce xar bi matagul de waaye kooku di kii waaye mais affaire yi gis nga des na de lii mu naan appareil le vingt six le vingt six la vingt six le léegi le vingt cinq ñu bugg ñu jàpp leen. Mhm. buñ leen jàppee. yóbbu yóbbu leen kaso kenn bu leen gis déedéet bu ñu leen jàppee maa ngi wax le ministre de l' intérieur seen permanence yi lañ leen di yóbbu photo leen. Ah. daal di wax militant yëpp ne leen ñu ngi fii. Euh, bañ a joxe xar. a dañoo bëgg a laqatu dañ doon diggee bañ a tabaski. bañ a bu ñu nee noo tabaski bi gis nga ni mu demee dañ maa jàpp nii. loolu lañ bugg waaye loolu mënut a nekk. ah laay mënut nekk. kon loolu yow. loolu yow loolu yow bëgg na ko def. Hmm. ah hmm. ah ah yow kay ni nga waxee nii. Eh, ñun ñoo nekk ci nguur gi loolu nu ma koy. def ngay nekk ci nguur gi da ngaa a ci nguur. mbay da daan dem màkk. ah di ni mu demee la màkka mënu ma faa dëkk. Ah. Hmm, boo demee ba mu yàgg da ngay bay ñi munta dem dem. dëgg la laqatu militant yi dem. laqatu laqatu militant <laughs> la wax loolu. <laughs> yoonu makka rek ñaata kii la billet makka bi kañ boo ko jëndee. ay xar boo ko wasaaree loolu bari mais nag li ma jaaxal mooy. ci li nga wax Déthié Fall fi mu toll nii yàkkamtiwut lu du dugg kasoon waaye duñ ko jàppee noonu. nan ngay def Déthié. gis nga xoolal. Mhm. kii euh, kii booy booy booy jomaay. waaw defe na ni mucc na dañ koy libéré. Hmm. alhamdulilah rabbil alhamdulilah waay. Cheikh Bara Cheikh Bara Cheikh Bara Ndiaye mii di toog fële pavillon spécial di leen ko ragal ay kii ak naat libération. Oh. dañ koy libéré. sonko sonko. sonko gis nga barricade bi. dañ koy defee na ni dañuy yëkkati barrière mu joxe xar. Oh. moom sax du joxe xar moom parteem ñoo koy jox. waaw ah, Sonko day joxe ah, yi de moom bëgg na. la waaye de man waaw dama ne képp ku Moussa joxe xar. waaw dinañ la libéré. déedéet eh, mais aide ma ne maire bi dinañ ko libéré. Ah, ñoom ñëpp parce que boo leen bayee ni kaso bi day neex ci ñoom. dëgg la. bay. mag ma ne wax naa ko président nee naa ko président ñii xam naa liñ bugg. dañoo bëgg ku leen jàpp tëj leen ci kaso bi libéré leen parce que fi mu toll nii kaso bi gën a métti mooy nga wàcc ñu ne la kër ga dara nekku fa de militant yëpp taxaw kër yow lañ mm. yaakaaroon comme affaire bi kii na affaire ba parce que loolu bu fekkee ne réglé problème bi ñoom ñëpp ñu def transhumance <laughs> ah léegi daal da ngay di leen di libéré. Mm. Jomay Faye da nga koy libéré. Jomay Faye bu yeboo xam nga foofu ca njaga ñaaw. <laughs> def fa daan joxe xar foofu yàpp. ndeysaan defe naa ni na. temps yi dañoo jot benn message am mu envoyé vocal naan booy affaire bi de ren moom macha allah parce que maa ngi pavillon bi nii jàpp sama njaaw ren moom affaire yi du baax man ne ko affaire yi du baax tey lay baax. Ah. opération dañ ko léegi ah, Cheikh Baara Ndiaye ngay nekk. Cheikh Baara moom it mi ngi tegale tàggam. defe am na ñu bari ñu ko yaakaar. libéré waaw de xoolal fi mu mi ngi naan noo xam naa ki gi ren moom naa libéré. <laughs> ñu tabaski ji force. ma ne dana tabaski ji ci. te am na xar moom daan rey ca jàkka ja. jumaa ji tuuma bu yemoon na ko waajal. macha allah danañ ko parce que da ko daan jëndee lu seer. waaw jumaa ji tuuma dañuy xam nga fan yii yëpp tee nañ ko teeli ko defee loolu mooy sanction. léegi ñoom buñ bañee nag. Eh, dañoo ñemee bañ setal gennal <laughs> dañ lay teg fetal ne la génnal kaso bi. <laughs> non non non may la jërëjëf waaye. gaa yi ñii ba cegu ndar kam lañ leen di kii ba noppi. jiital leen woo ñaa mu sinab leen. ñaaxare. <laughs> woo ñaaxare ñu ko sinab leen. ah da ngeen di bañ génne leen ñu dem tëdd feneen hôtel. as attan nga leen a génne ñu dem hôtel. daa di toog naan ba tey gën a guñ <laughs> dañ leen di sinab bu ñuy gën ne leen gën gën yéen a ngi libéré. non jërëjëf jërëjëf jërëjëf. parce que wax dëgg fa mbay nga nii ngeen jugtee. parce que boo seetaanee xar ren seer na. Ah, ñoom ñi ngi toog defe ne jàpp nañ ci ñoom. xar ren seer na te bu balaa muy ñëw. Amadou Ba dina jënd xar yu ndaw yëpp yu 60 mille yëpp. Ah. un million yi dong fii des. ah day jënd lépp. Amadou Ba préparé na jënd xaru 60 mille yëpp. <laughs> bàyyi leen stocké ko da koy stocké. dëkkee bu ko defee kii bi wéyal. militants yi sant leen yàlla. jërëjëf ay xaru un million ngeen di am ay six cent mille. ay mbay loolu métti na de. Eh, bu xasee yëpp jógee. <laughs> jërëjëf. Amadou ah, Ba am nii am. Amadou Ba parcelle fi mu toll nii wut nañ kii boo xam ni day jënd xar rek di stocké. cent soixante mille. pour libérer gars yi <laughs> Basirou bu génnee. war a dajale li mu ko ndaane woon yëpp dina ko yónni dootu financé parti bi kon waa ñaga ñaaw na ngeen xaar ba si duñu may xaar yu ma li ñu waroon demee élection ñu jëlee xar budget bi laa bëgg ñu demee ko merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ndiaye am na solo maa maa xelal Macky yow li nga ko koy xelal bi parce que dafa indi misil sol air ma ne ko boo leen doo leen sol air feexal leen macha allah sol air bi baaxul waaw macha allah tabaski rek bàyyi leen ak tabaski bi si doy na waar tabaski moo tax sànq ma ne cin bu naree neex bu baxee xëy nii ngeen ko commencé gaa yaa ngi gën merci ñi demoon ba defee ni rëcc nañ papa jaaye ngi xar war na ko président jëndeegul xar comme ni mu ko daan eh, papa jaaye ngi nii mook Serigne Saliou Serigne Saliou dem gis naa ko muy def vidéo daa découragé Ah. ndax boo daa bëggoon a xaar jërëjëf. jërëjëf maa ngi leen di gërëm woon na ni échappé. jërëjëf dafa ñëw rek jabar ji ne ko jëndil xaar. jërëjëf <laughs> euh, mu nekkoon ki nga xam ne rek moom moo di Mbaye Ndiaye nekkoon suñu invité ñuy sargal ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ñu bàyyi woon xel fi nga xam ne rek moo ci solution TV studio El Hadji Sid Lamine Niass ñu sargal leen encore une fois di nuyu ki nga xam ne rek ñoo nekk ci région bi ku mel ku ci mel ni El Hadji Mamadou Diouf ñu ngi koy nuyu lu bare bari euh, topp euh, ak lay jàlloo ak ki nga xam ne rek moo di Mouhamad Fadal suba incha allahu rabbi ajaratu béti mbub si dee calaw dina fi ñëw taw ci beneen euh, takku show quant à moi je vous donne rendez-vous lundi incha allahu rabbi jërë ngeen jëf moo leen doon may seen émission Taku Show KPI sa bopp ak boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show